jërëjëf rek di niiw nuyu euh, képp xam ne rek yaa ngi seetaan euh, jamono ji ne rek lii di euh, Up This Morning fii ci biir lii di i TV Euh, toogaleen fi nag euh, seen doom day Sara ak kii di euh, Binta ni ki tey nag dinañ dem xooli li nga xamoon ne xewoon na ni ki démb fii ci biir lii di réew mi gisoon nañ ay yëngu-yëngu ay ñaxtu yi nga xamante lii di ndaw yi ñu ngi ko doon def ni ki démb loolu nañ si gën a andi li nga xamante ne moo di nañ si andi li nga xamante ne moo nekk lii di ay waxtaan waaye tamit am nañ ñaar ñi nga xamante ne ñu ngi leen ci li nga xamante ne moo nekk lii di programme bi ni ki tey bokk na si ki nga xamante ne moo nekk kii di Falam Sonko bàyyi ko ci UDP moom nag nañ ko nañ ko laajte euh, lan mooy gis-gisam ci li nga xamante ne xew na euh, démba fii ci biir lii di réew mi euh, su ko defee tamit nañ waxtaan ak ki nga xamante ne moo nekk kii di honorable Silla moom tamit nañ waxtaan ak moom ci lu demee lu xewoon fii démba ak tamit li nga xamante ne rek ne mu ko daal di def foofu noonu rek ci goxam bi foofu ci biir lii di Banjul nag loo yëpp nañ ci waxtaan fii ci biir lii di Star TV of this morning ma daal di bàyyi kii di Binta mu daal di nuyoo Binta assalamualeykum warahmatullah mbalamulami jiɓe nalɓe kontono momoy toni konton mbar hakkilo bulandi rakkal basta tv le jiɓe kañum temɓe alla programme min kanale ka wotenon kata fo jumalu ka fay of this morning bi ɗum na kaca laɗo soto mi ka fole ko falan sanko mi yalum ka nata pourani molen kaca animol ba kaca la pol mina wolen fo mi yalum dokita birkano dokita serakumna wolen sasowan dokita ibota naɓa kaca bota je fanaa muɗo soto mi yan ko député la min bota bandu o fana mbinaja animole kaca kuwolla min yalune wolle kata anin aba mum kuwolle ke kala da salat sata Euh, jërëjëf rek euh, Binte comme ni ñu ko waxee rek euh, balaa ñoo daal di commencé li nga xamante ne moo nekk daal di dem seeti xibaar yi nga xamante ne rek am nañ ko fii ci biir lii di kër gi balaa ñu daal dem ci li nga xamante ne xewoon na fii ni ki démba dañoo daal di dem andi benn report bi nga xamante ne def nañ ko ci lu toll si ay fanweeri police officer yi nga xamante ne ñu ngi ko rek ci Gambia Police Force si roon jiitale lii di anti crime unit bi ñi nga xamante ne dañ lañ doon ay certificat rek gannaaw bi nga xamante ne jeexal nañ lii di benn weeri training euh, bi nga xamante ne ñu ngi ko doon daal di def euh, ci wàllum lii di euh, tactical lii di opération ak counter terrorism fi nga xamante ne rek ne wane nañ li nga xamante ne loolu lañ leen jàngal si jamono li nga xamante ne moo nekk li training boobu noonu ki nga xamante ne moo doon moo def lii di report bi mooy kii di Seydou Camara ñu daal di dem teewlu Seydou ci lii di report bi ñu daal di ñëwaat fanweeri police officer yu bokk ci Gambia police force ci ron anti crime unit bi jox nañ leen certificate ci tàggat bi nga xamante rek ñu ngi leen ko doon defal bu am lu toll ci benn weer. ci certificate yooyee nag ñoom police officer yi nag daal di nañ jëfee li nga xamante rek moom lañ leen jàngal ci tàggat boobu. ni nu mel nag mu nga antu niki euh, démb ñaar fukki fan ak ñett yi ci weeru julaay atum 2019 ci màkkaanu anti crime unit bu nekk foofale ca diwaanu Bijilo. jiite anti crime unit nag di góor gi Mboup gaaral na fa ay kàddoom di xamle nag anti crime unit bi daal di nañ tàggat lu toll ci fanweeri police officer yi nga xamante rek jamono ji dugal nañ ci ñoom xarañte waaye tamit lu waral anti crime unit bi fii ci biir réew mi mooy pour fexe ba gis ne daal bépp xeetub ñaawteef ak tamit bépp xeetu fitna fii ci biir réew mi dinañ ko daaxalu anti crime unit bi nag nee na am nañ jafe-jafe ci training boobu ñu doon def waaye nag ci pas-pas bi ak gom-gom bi nga xamante ne am nañ ko jamono ji ñoom nag am nañ mbégte ak kontante pour daal di gaarale fanweeri police officer yi le ci kanamu Gambia Police Force pour woon leen nag am nañ ñi nga xamante rek jamono ji ñoom nag feature commanders lañ ci liñ gën a ràññee ci li di tactical operation and counter terrorism moom góor Gorgui mbuub nag mu continuer ay kàddoom di xamle ne police officer yooyu nag tàggat boobu ñu doon def am nañ ci lu toll ñeenti semaine yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ci li nga xamante ne rek moom moo nekk counter terrorisme bi looloo waral nag jamono ji ñoom kenn ku ne ci ñoom nag liñ la tàggat daal mun nga ko nag ci wàllub bind ak li nga xamante ne moom moo nekk jëf ci boppam mu ne nag amoon nañ jafe-jafe ci wàllu jumtuwaay yi nga xamante ne moom lañ waroon a jëfandikoo ci tàggat boobu ñu doon def waaye nag mu ne pas-pas bi daal waral na ba jamono ji anti crime unit àgg nañ fi nga xamante ne ni foofu lañ doon séentu gaay ci training boobu mu ne nag bi bile dafa doon cérémonie bi nga xamante ne ni cérémonie bu euh, ndurawut ak benn la ndaxte anti crime unit bi jamono ji nag wane nañ pas-pas dégute yar ak teggin ci tàggat boobu ñu leen doon def ba looloo waral nag moom si boppam moo sàkku ne war nañ leen a jàppal bés bi nga xamante ne dinañ leen jox certificat ci liggéey bu xarañ bi nga xamante ne rek def nañ ko. moom góor gi mbuum nag muy xamal askan wi ne gannaaw bi nga xamante ne rek tàggat nañ fanweeri police officer yi le jamono ji nag askan wi war ñoo xam ne buñ sukkandekoo ci wàllu tactical operations ak counter terrorism. mu ne nag am nañ officers yi nga xamante ne nii ñoom li leen di tax a jóg ak leen li jiital daal moom mooy lu jëm ci wàllu kaaraangeeb réew mi Seydou Camara Star TV News. jërëjëf rek loolu nekkoon xibaar bi nga xamante ne Seydou andi na ko benn fan gannaaw bi nga xamante ne rek ne ak lii di euh, police officers yi nag tàggat nañ leen euh, ci wàllum li nga xamante ne moo nekk lii di tactical operation ak counter terrorism euh, gis nañ yëngu-yëngu bi nga xamante ne xew na foofu noonu rek ci biir lii di Brikama ay ndaw yi nga xamante ne ñooy ooyee seen bopp lii di WCR ñaata dorong am na démonstration bi nga xamante ne ñu ngi ko doon dal di def foofu noonu rek ci lii ci Brikama ci Brikama area council laaj ki nga xamante ne moo nekk li di mbooloo boobu noonu ci report bi rek ñu si teewu ki nga xamante ne mooy Brikama si marché bi tey nag euh, ñu doon amal fii li nga xam ne mooy proteste maanaam doxum ñaxtu wane seen naxar ci wàllum euh, ñàkk euh, li nga xam ne mooy jumtukaay si maquette bi maanaam matériel ak wàllum cet si maquette bi. buñ fi ñëwee nag te jii mbokk yi ñu teel fi yegg si ay boru naan waaye ñu fekk si fépp foo xam ne waaye fu ñu waroon a proteste ñu fekk fa ay waa PIU police intervention unit ñu ñëw nag li nga xam ne encadré maanaam. yore protestin bi ñoom nag si lu ñu wax nag proteste bi du mën a am ndaxte euh, amuñu benn ndigal amuñu lay seen lu leen ko may ñi nga xam ne ñoo bëggoon proteste loole nag indi jaamarloo bu metti seen diggante ak ñu bëggoon ñaxtu maanaam waa Brikama yi ñoom si lu ñu wax rek mooy euh, bu naweek bi doore ba léegi maanaam bu mu euh, dooree taw ba léegi luñ fi nemmeeku rek mooy wàllum ñàkkum cet bi dañ ko nemmeeku bu baax a baax si maquette bi te amuñ dara loo xam ne moo koy évacuer maanaam seetal maquette bi loolee nag moo waraloon seen naqar ñu génn bëggoon ko wane tey si kanam ñëpp waaye euh, euh, police bi wax ne rek balaa ñuy proteste foo ñu am ndigal foo ñu am laysin loolee nag ginnaaw buñ ko amul muy indi jàmmarloo seen diggante ak askan wi ba ñu saax ñu nemmeeku ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu jot nañ si gis ay tuuti tamit yàqute ñu si mel ni ay moto yu taxawoon ci yoon bi askan wi nag wane ba mer ba futu luñ ko waral nag mbokk yi mooy ne ñoom si luñ wax jéem nañ jokkoo ak waa Brikama Area Council waaye mujjul antu te ñoom mënuñoo nangu seen dëkk fu ñuy fu ñuy demee market fu ñuy demee ndugg fu ñuy defee seen lu nekk mu nekk si situation bi mu nekk si anam yu métti maanaam ñaakum cet bi si lu ñu wax nag mooy gota yi wan nañu gota yi ñu nekk si anam yu doy waar mbokk yi waaye nag euh, luñ fi nemmeeku rek mooy ne ginnaaw ñaari waxtu euh, ñuy doon amal jàmmarloo seen diggante ak police bi euh, daa nekk fu mu ne nii proteste bi dox ñaxtu bi jeex na ñu bëggoon proteste mujjul antu waaye jot na déglu si ñi nga xam ne ñoo bokkoon si ñu doon ñaxtu ñu xam ñu le rek ñoom pareeguñ ci noppeeguñ ci. dinañ ci wéy ndaxte seen euh, constitution réew mi moo leen ko may right ngir ñu mën a proteste wane seen naxar wane seen mbégte kon nag euh, mbokk yi euh, bu loolu weesoo di ngeen si jot a déglu ñi nga xam ne bokkoon na si ñu teewoon fii ñëwoon proteste ñu wane rek seen naxar ñu wane rek li nga xam ne neexul leen maanaam anam yu seen maquette bi nekkee mu nekkoon nag seen naataangoo ñëwoon fii si Brikama Area Council rawatina bi si Brikama Maguette ngir SATV News Euh, jërëjëf rek ko nekkoon Amadou Bari rek loon li nga xamante ne xewoon na foofu noonu rek ci biir lii di euh, Brikama euh, balaa ñoo daal di dem ci li nga xamante ne xew na si biir Serekunda ak lii di Ibootan dañoo daal di dem xool li nga ne xewoon na tamit ci li nga xamante ne moo nekk lii di TRRC bi ki nga ne moo nekk kii di Omar E moom nag bokk na ci li nga xamante ne moo nekk lii di hit squad yi lii di Yaya Jammeh ñu gën koo xamee ci Jongula si moom nag ci ñaari yoon bi nga xamante ne rek ne mu ngi doon rek foofu ci TRRC bi joxe nga xam te ne moo nekk lii di ab seede euh, dal di na wax ne nag ne bokk na ci lu toll si euh, ñeneen fukka ak euh, juróom-ñett ci ay rey yi nga xam te ne rey nañ ko si jamono ki nga xam te ne moo nekk kii di nguuri yaa jame bokk na ci rey bi nga xam ne rey nañ ko ki ne moo nekk kii di Baba Diop a tamit lu toll si ay fanweeri Ghanien moom nag gisoon nañ ci lii TRRC bi ci kanami TRRC bi nag moom mu ngi doon laaj pour réew mi rek ñu dal di ko jéggal ci tafaar yi nga xam te ne def na ko rek fii ci biir lii di réew mi euh, lu ñooy daal di def rek mooy daal di dalal euh, ki nga xam te ne moo nekk kii di euh, Falang Sonko euh, Falang Sonko rek nañu waxtaan ak moom ci li nga xam ne xam xem xew na foofu rek ci biir lii di euh, Brikama ak si biir euh, lii di Serekunda ci biir lii di Ibota ndaxte gis nañ kër ki nga xamante ne moo nekk kii di góor gi mbub jiite anti crime unit bi këram bi nag dañ ko daal di lakka foofu noonu rek ci biir lii di Ibota ñu daal di dalal ki nga xamante ne moo nekk kii di Falang Sonko Falang naka su la si bismillahi rahmaani rahim Sara Camara alhamdulilah maa ngi leen naa nuyu di leen gërëm di leen sant di naqarlu li fi xew ci ma wax dëgg yàlla muy tiis boo xam ne lu daw yaram na te fooguñu woon ne mun naa am te fooguñu woon ne war naa am wax dëgg yàlla foog nañ ne Gambia toll na jamono xam ne suñ ne ñu Gambia foogoon nañ ne façon cafaar yi waru xew na mën a xew waaye nag alhamdulilah xew na waaye nag ñu ngi sant yàlla trop kontaan naa nag ci li ma teew fii ak li ma invité ma dem bi naa si trop ok monsieur Sonko euh, xool nañ euh, report si nga xamante ne am nañ ko fii nii euh, ndaxte gis nañ training bi nga xamante ne anti crime def nañ ko li mu ngi xewoon barki démba benn weeri training bi nga xamante ne ñoom ñu ngi ko doon dal di def waaye after training bi bu ñu leen seen certificat si ba gaay wone seen man-man ci nga xamante ne loolu la gaay jàng si training bi dafa mel ni rek ne gis nañ wàllum kaaraange benn tey démba dafa nasax lool fii ci biir lii di waaw li si gën a daw yaram mooy mënuma understand ndax dégg naa information bi nga xam after xale yi yàgg nañoo wax ne ñu ngi dem Ibo Town pour dem ndax kër góor gi buub kaaraanga gi lan lañ doon def ba nit ñu mun a am accès te exemple ba la amin soo ko seetloo dafa daw yaram ndax soo seetloo interview bi ma dégg ak wax di fa nekk yépp li gën a métti si àddina mooy pour xeex crime te soo xeex crime tamit crime kat yi tamit dañ lay xeex mu ngi mel ni rek comme drogue dealers rek da ngay xeex ñu lay xeex du lu yomba te loolu dafa itteel réew mi samedi bi passé lañ am meeting ak góor gi mbubb mm-hmm. te góor gi mbubb si boppam dafa wone ne moom jur la mu ne anybody ku mun a witness na jox mos na koo jox transu si liggéeyam o mos na koo jox si liggéeyam na nga génn wax waaye tey interview yi ma dégga xëy na interview tuuma ndax bi góor gi waxee loolu dama gëm ne góor gi mbubb li moo wax daf waaye nag léegi ekkiti ay tuuma di ko teg si boppi nit naan ko dañ dóor nit dañ ko socce rey ko ba pare li ma dégga si interview bi man li ma si jàngat mooy ki sàcca nañ ko waaye ki jaay moom lañ téye diteen ko ki sàcca ñu bàyyi bon nag su fekkente ne ki sàcca dañ ko jàpp ki jaay ki mu jox alal bi ko ki nañ ko ndax loolu dóor mën na faa xaj ba di ko rey su ma si suma xelaat mm-hmm. dóor mënu faa xej because kii jàpp na waxuma nag ne dóoruñ de déedéet waaye kii sàcca jàpp nañ ko kim jox pour mu jaay jàpp nañ ko ndax loolu dóor mën a dina faa xëy because man li ma understand si dóor mooy ne mhm. nga suspect nit ki jàppa ko waxut la digga waaye kii sàcca teew la ki jaay ki jox mu jaay teew la ndax loolu dóor mën a faa xaj ndax xel dina ko nangu ne dóor mun naa xaj foofu ba dee di si génna waaye nag ak ni mun di demee wax dëggaan ne yàlla duma ma dee sori su lu ma amut xam-xam lu ma yëgul dégg dégg rek laa si gis waaye nag lu daw yaram te Gambia dañ war a bàyyi suñu xel ndaw ñi dañ war a bàyyi seen xel waxoon naa leen ne ndaw bu nangu te liggéey amuloo métier nga ne lan nga bëgg a def ne di nga tedda dina sonna dina métier de Sarakaba mm-hmm. keroog samedi biñ bi ñu amoon ak gaay Ibo Town am na kilifa yi fa gaaral kàddu ñu ne ñoom suñoo dem julli fajar dañoo gàddu jaasi ak ak pour protection bopp ndax xale yu daw dañoo nekk si biti ba pour set soo jógee pour def julli yi ñu ne la li nga amee teg ko si xale yu ndaw ci suñu doom ak suñu jarbaat muy lu daw yaram te góor gi keroog joxe na message neex na xale yi xam ne pare na mu ngay ñëw te na ay nitam ñu ngay ñëw te xeex crime du lu ndaw te mboolem koo fi gis bugga nga sa doom tekki waaye nag nañ waxante dëgg nañ wax xale yi dëgg xale dangay dem jàngi mbaa nga jàngi métier di ut fooy teddee waaye bugga lu yomba li ma gis ci dëkk bi dafa daw suma yaram te te daf ma tiital xale yi seetal ñaari yëf lu xale bugga hmm. fii daal dañoo carte o dañoo sàcc o dañoo jaay taaj lii dina yóbbu réew kanam si xale yu ndaw nga toll si jàng seetal fi mu nekk nii mun naa wax ne ak luñ mun a bile nguur gi waaye mun nañu wax ne jàng teel a gën a yomba facilities yëpp yaa ngi ko am chances yëpp mu fa waaye xale suñ jógee duñ nangoo jàng soo jàngut soo munta dem school mun ngaa jàng métier foy yi fi bari sax yi fi xale yi mën a concentrer pour tekki dafa bari fi mu nekk nii su dee da nga a play basket soo si façon jom mun nga see tekki football mun nga see tekki high jump mun nga see tekki daw mun nga see tekki volleyball handball yëpp am fi mun nga see tekki waaw xale yi suñ buggee tekki te su fekkente ne bugguñoo jàng fo lañ bugg a duñ concentré si fo yooyu ndax ñu tekki ok léegi euh, xam nga euh, Falang gis nañ fi euh, barko démb rek ci génn àdduna Euh, benn university student euh, ki nga xamante ne kooku tamit police officer euh, moo ko jam paaka mu daal di génn àdduna ñu daal di ñëw tamit gisaat beneen xibaar ne Darboe de de jaay si marché Serekunda moom moom tamit dafa génn àdduna ci téye bi nga xamante ne police yi ñoom ñoo ko téye yow foogloo ne tamit réformes yi nga xamante ne yooyu la ñoo wax ci wàllum lii di sécurité bi réforme boobu noonu war naa teel a loolu moom lu yàgg lañ waroon a def sécurité réforme bii. fooguma ne nguur gi waroon nañoo toog sax ba léegi fekka defuñ loolu ndax loolu gis nga réew su amul kaaraange rek dara du mun a sotti waaye nag dafa am leen la problème bu ñu am dafa daw yaram trop trop ndax si dëgga dëgga dëgga security reform bi waroon naa teel a am ndax mënumaa understand et police officer yow war ngaa soxla sa paaka sa di xeex ak yaa ngi use paaka then you are not trained definitely they are not professional because man mënumaa understand sax góor ak góor man bi maa nekk xale suma morom xalaatu ma ngànnaay sax suma su ma morom waaye nag sécurité su demul ba amul dara lu moo def bay jam civilian ba di ko rey wax diggaan na yàlla kooku sécurité boobu war na ñoo seetaan biram te sécurité façon sécurité yu yooyu dañ bari si service boo xam ne wax diggaan na yàlla xam-xam bi nekkul fa tàggat bi tàggatuñ leen mhm. xale ñu ñu bàyyi leen si sécurité bi loolu moom warta am ba pare am na lu daw yaram trop luy war a xelaataan gis nga ki war a defar su yàqee dafa métti dafa métti te foog naa ni situation boobu lañ toll te waxoon naa ko te dinaa jël opportunité bi di si wax Gambia dañ am disappointment te lii mooy dëgg ku ko waxu rek parewuloo wax dëgga yàlla def ñu indil ñu am a transitional period président muy his excellence Adama Barrow di suma rakk wax dëggaa ne yàlla dama ko bëgg si suma xol bi trop waaye fi ñu amee problème bi mooy liñ ko gëmloo ne ko yow dem fi foofu la problème bi dóoram waaye suñ ko waroon ne ko transitional période président nga mu focus rek ci transition bi si ko doon problème bi du am waaw lii nga war a def lii nga war a def lii nga war a liggéey waaye liggéeykat su amatul jot lu du politique ka lay liggéey problème bi ñëw na te fi nekk ni soo seetlee réew mi lii mooy lu ñu gën a sonal ñi war a concentrer pour liggéey amatuñ joti liggéey ñu ngeen politique politicien ñi nga xam ne dara su de fi mu nekk nii dafa mel ni réew mi mu ngi ñoo sonal mu ngi ñoo delloo gannaaw te loolu bokk na si lu ñu delloo gannaaw saa léegi ma delloo sa xel rek euh, ci euh, téléphone conversation bi nga xamante ne euh, ku fi nekkoon mus na koo am ak Adama Barrow bi nga xamante ne mu ngi ko doon congratulate ci gagné bi nga xamante ne gagné woon na ko ci élection bi gisoon nañ ku fi nekkoon wax ko ne wàllum kaaraange bu ko caaxaane wàllum kaaraange bu ko nasax nasaxal moo gën a important ci biir réew mi yaa because loolu dëgg la kooku it foofu mun naay wax ne joxe na honest opinion because xam na ne twenty two years bi Gambien si luñ dunda dafa métti soo ñëwee nag ne léegi teggi naa loolu seen kaw ku nekk yaa moom sa bopp mun ngaa dem fu la neex mun ngaa wax li la neex moom lii la gisoon xam ne du yomba te du nekk lu neex waaye li si gën a daw yaram mooy li gën a delloo réew mi gannaaw mooy li ma la wax nii rek mm-hmm. li aadama gëm ne moom def ci war a toog lim nangu te gëm ne moom transition transitional period président la dafa war a ñëw lu yàqu mu defar ko mu def su gëmoon loolu di liggéeyee noonu ni konoon te problème bi nekk ni yëpp duñ fi toll waaye lii moo ñu gën a jox problème te pour soft security bi wax na dëgg de du caaxaan bi 22 years kenn du ñemee na yëgul kenn du ñemee na saxaat ñu ñëw ne teggi nañ loolu seen kaw su ngeen àndut ak dal àndu leen ak sago rek ah mun naa jur leneen te si foofu lañ toll fi mu nekk nii wax diggaan ne yàlla liggéey bi du yomb si moom ba pare dafa gën a bari liggéey bi si boppam suñ la enee liggéey emal si loolu leneen li nga bàyyi ko si loxo yàlla ak loxo gàmmeen mm-hmm. Adama mooy his the luckiest person ki mos a gis si àddina ñetti weer nga nekk président loolu du lu yomba mm-hmm. dafa nekk li nit ñi liggéey na for twenty two years moo tax yow nga mun a am chance boobu ñetti weer nga nekk président du sa liggéey liggéey ñi la bon nag su la yàlla jëlee tegee responsabilité bu mel noonu yow yaa wax ni ñi ne leen man ñetti at laa fee toog ma bàyyi moom moo ko dig Gambien si bon nag dañ tey suñ eggee si loolu foog naa ne dafa waroon a am njekka ak teranga mu waxtaan ko Gambien si kaw njekka ak teranga xam ne moom njekka ak teranga moo ko may place bi waaye du leneen waaye suñ la gëmloo ne yow yaa fi war a toog ba léegi nga war a génn waxtaan ak askan bi si njekk ak nga taxaw naan di wax askan bi ne kum neex kum naxar ah aw keroog fan nelaw ma guddi. nelaw si guddi ñoom nelaw. ok euh, nañ li moo jur nañ ñu jox image euh, photo image yi nga xamante ne rek ne euh, bàyyi ko na rek ci kër yi lii di góor gi buub nañu jox lii di image yooyu noonu ñu daal di xool lii di image yooyu noonu gis nga. sécurité bu demoon foog naa ci kër góor gi góor gi mbuub man man su ma gis-gis foog naa ne kaarange gi Uh, doyutoon because um, as yow noo noo ko waxee woon um, um, yàgg ngaa dégg nit yaa ngi wax dañoo dem lakki kër yu góor gi boobu so su fekkee ne lii nii xapoon na dañu war a make sure ne uh, foofu noonu was highly protected inaccessible exactly because góor gi mbuub ñëpp xam nañ li moo def du liggéey bu yomba góor gi mbuub dafa takkan diggaam bugg a pour ne affaire criminal yi ak li fee xew nañ ko bàyyi because loolu da ngay gis ne li ñu wax Ibo Town man mosuma xalaat ne looloo ngee xew Ibo si paa yi di dem jàkka dañoo gàddu jaasi ak et si bi ñëpp lañ ko doon wax te ñëpp d' nañ ne loolu dëgg la even keroog sax man saali seen kan man saali moom si boppam dafa witness loolu ne moom si boppam def nañ ko ko moom si boppam nga war xam ne li ñoo wax dëgg la tuumaluñ kenn li wax dëgg la xale yi seen jikko nañ ko bàyyi suñ ko bàyyiwul nag góor gi mbuub dafa am pour stay ak tuubam so yow yaa ngi so yow yaa ngi enforce ne góor gi mu dafa war a am dafa war a am. kaaraange ah, dañ ko war a ah, ah, ndaw yaa ngi doon wax na ñoom luñ bëgg a pour ñu disband anti crime. waaw because ndaw yi noonu la ñu bëgg a because criminel ku ko doon rek lan moo bëgg a. foog nga ne sàcce dina bëgg a ko téye. kenn ñoom loolu rek loolu rek ñoo mën a waxee because ñoom amuñ aim ne nañ dem liggéey pour ñu tedda ñoom li am mooy nañ dem daan nit ñi nañ dem nangul ale nit ñi nañ dem sàcc pour ñu tedda loolu def di jàmm sérieux ku ma waxoon ne doomi Gambia dina bixee fee nii wallaahi du ma ko xale yi nañ nangoo jàng xale yi nañ nangoo daan seen doole ba pare am na leneen luy xew si dëkk bi mer naa si trop. mooy la mooy casino yi. ak carte yi. wallahi du jur jàmm because yàlla si boppam moo ko wax yonent bi wax ko na nit ñi bàyyi lu yomba lu xaraam dafa xaraam du ma a dagan addina bi yëpp suñ d' accord ne ne carte dafa dagan wallahi carte du mos a dagan te li moo jur gis nañ ko bugga lu yomba bugga ngaa nekk millionnaire te doo liggéey loolu ku ko wax da ngay nax sa boppa xaalis da ngay liggéey ku bugg a tedd da ngay dem daan sa doole di dundee sa ñaxa mooy lu lay njëriñ àddina mooy lu lay njëriñ àllaaxira te si li si gën a métti ñi ko def ñi si gën a bari ida jullit lañ au Christ kana ma sa gis li yàlla ne lii baaxul yow nga ne dina baax mën ngaa fexe ba loolu baax du baax ok ok léegi ñu dem ci lu xew ci biir Brikama euh, démonstration bi nga xamante ne xew na foofu noonu gis nañ euh, ndaw yi nga xamante ne demoon nañ laaj pabit euh, jox ñu leen pamit pour gaa def peaceful protest euh, loolu taxut ñoom ñu génn euh, bugg a am li di peaceful protest euh, loolu mu ñëw mu yàqu foog loolu moom dañ leen waroon jox pamit bi gaa yi exercise seen right ñëw wone seen naxar ci jaama affaire bi jeex waaye foog naa ne honorable moom fi loolu ñoom seen liggéey la ndax man suma boppa mii April 14 dañ génnoon def demonstration waaye li si xew foog naa ne Gambie yëpp xam nañ ko lii Adama Barrow si boppam dafa war a understand ne his excellency dafa war a understand ne moom nit ñee ko sànneel carte moom feteel tegu ko fi mënumaa gis the reason why police yi sax di xelaat sax di laajte ne ku bugg a def démonstration da war a ut permis te sa constitution bi jox la garantie bi ne mun ngaa def peaceful démonstration te doo laaj permis lu tax ñu laaj ne ñu permis la lañ lay ragalee ne xale yi dañ bugg a def seen wane seen naxar ne bis bi Brikama area council li faa dox certificat ndax dégg nga because gis nañ ne seen maillot baa ngeen liggéey mu ngee jéem ñi fi fekkoon mu jéem koo defar kenn si li Brikama bi di war a def moom it moom it nag taxan di gaam liggéey mu jéem a setal dëkk bi ku la mënta setalal sa dëkk si ñaari at kooku mën na laa promise loo gëm kooku mën na mënta promise loo gëm demal kenn si ndax ngeen nga gis li fi nekkoon two years ba ndax mu fi tey passé nañ foofu waaye nag area council bi dafa war a understand ni ñuy dañ ko sànneel carte pour mu liggéey waaye sànneeluñ ko carte pour muy caaxaan te Brikama mooy di biggest area council throughout mm. this country mm. su Banjul mu nee ma ne ba kenn waxatu yëfi salte Banjul honorable baa ngi fii yëg na ko mm. su Talib mu nee ma ne ba kenn waxatu affaire yi salte KMC mu ngi ma how about Brikama especially market bi si boppa su market bi mun ta set feneen mun naa set man maa ngi dëkk Bruce bi for the past two years musuma faa gis maa dee fay sare suma jabar ak man ak suma jabar ñoo dee fay sare ak suma benn dëkkandoor ku ñoo wax duudu maa koo gërëm di ko sant mu ne suma jabar moom dafa hire this ko tuural man mu ne suma jabar léegi bàyyil man su gars yi sa bandi bi suñ jël suma bos ñu sa bos collecte loolu jàmm la si biir camp man mii maa ngi amee arias three thousand six hundred démb ma dese wax naa leen ne balaa end of mois dinaa try ma setul ba lanay problème yi Brikama Area Council suñ mun ta def leneen sax waaye war nañoo mën a setal dëkk bi mbaa ñu def jublu boo xam ne dina setal dëkk bi ba pare li ma mun ta understand mooy lan la war a tax police yi ak sécurité bi ñuy war a aay nit ñi pour ñu démontrer te nga ne si démocratie si ba pare ñu ngeen call a new Gambia dañ war a understand ne amatuñ benn reason di aay nit ñi peaceful demonstration oo di la wax ne da war a apply permit waaye gannaaw yàlla def na ne honorable banque bi foog naa ne ñu ne fanxa prevention is better than cure mm-hmm. nañ jéem a seet loi yooyu di gàllankoor askan wi ñu jën koo génnee si loi yi te honorable yi tamit war nañoo takk seen diggal jéem a seet ne loi yi nga xam ne ñu ngeen na saxal démocratie waaye waaye nañ si góorgóorlu jéem a try seet naka lañ koo génnee si suñu loi yi ok euh, nañ dem seeti seetiwaat rek euh, lu xew foofu ci biir Ibo Town Euh, daal di ñëwaat rek euh, lakka bi nga xam lakka lakk nañ ko kër yi ki nga xam moo nekk kii di euh, góor gi mbub gaa ñu andi ñu li nga xam te moo nekk lii di image yooyu noonu rek kon dafa mel ni rek ne image yi ñëwagut waaw lii moo xew foofu rek ci gis na ndaw yi Falang ñu jamante xeer ñoom ak Euh, ñii di police gis naa si benn police sax bi nga xam te sax moom sax euh, foog naa ne dafa daal di loru sax moom si boppam kër baa ngi nii jamono ji nii euh, kër bi gars yi laaluñ ko waaye danga gis at the end of the day the number of PIU personnel yu nekk foofu noonu nit ñi ñoo leen ëppa doole is not enough Mr mm-hmm. Sonko gis nga gis nga kii nii gis nga kii ni gars yi ko doon dimbali dafa sonn trop. waaw soo seetloo mbooloo bi ma gis si image bi nii. Mm-hmm. loolu xam nga ne su fa sécurité nekkoon du am. Mm-hmm. ba pare li gën daw yaram mooy ni community bi tamit. Mm-hmm. war mm-hmm. man foog naa tamit dëkkandoor bi tamit. Euh, war nañoo waroon nañoo jël responsabilité pour gis ne. because euh, safara xamul xamuloo fan la moo yem. ok yow yaa ngi yaakaar ne daal lakk sa kër. safara boobu mun naa dem dem dem ba lakk ay kër kër yu bëri wala rek. waa am na ñoo xam ne bandi yi tamit. dañuy wax bandi gis na gis na gis na gis na. ñu dem sàcc rek a lii lañ dee yàkkamti. Mm-hmm. lii lañ dee yàkkamti pour ñoom ñu dem sàcc seetal lii rek seetal lii rek. so uh, li moo xewoon foofu ci biir uh, lii di Ibo Town rek uh, ci kër yi ki nga xamante ne moo nekk kii di Gorgui Mboup Mr um, Sonko um, ma bàyyi euh, kii di Binta rek yóbbu la ci kàllaama man ni ko Binta bala ah, ñoo a ak kii di honorable Silla a baraka baake on peut faire un tebe ñinin karamina because na ye ñin ko mi yanko do kata sira kunda do kata ibo tan do ba ko tan do kata be kam fana be ñinin kala na tare ba city fan ci yol yamar la be la mena ani min yalla ni ko wonen fondin gel te min yan ko la ñum baro ko ni be yamar be to fana yamar la mena yambe city fanol yamar la mena wala ñi ko yete o city yela ke bar

ikoy kamule ke sayin kanyapi molka mobile sayin hani dunni woni be tamila suto ya taybul e manki ba jiben e be ba fulan jiben e man dindin jiben ji na fondin ki ol daji ko ay masilam ba fondin ko yanta katalal ya so karawala o yeta mece karawala o yeta dokola bar fondin ki o tela doko kila nyinti karteo ani nyama wafo ani te koybe koto sotolale nduite batale wo bala fa wartale funding tol ñanto bulale security reform fana ñanta kelale yoy security karandi ya lonko i diŋolu ani mamariŋolu ani barindiŋolu wonta mal ley luga hani polisol faŋo diŋol ka tara ñiŋ kono le ntol fana wulula diŋol ntol politisanol diŋol bee kono le moo bee diŋo le baa kono woto banku diŋol fana ye miire la saama la itol le ko ñiŋ gambia itol le a tina ñiŋ faliŋo kita bari nak banko bukatano dokuwo koma woto fondin kewlu ye tewo siti ye son dokuwo la ye criminal ya kuwobula wala ñama saboti a waafo anin drog waafo yewo bula yeta dokuwo la nin ɓe sonta fo ga gambia falila woton ɓe ga songa ke dokuwo la ali a ɗon ne ko wallahi malaikata a nasi ñin banko dokuyi ntol faŋol le ñantanna banko dokuwo la woto bari fondin yeeɗa ɗum dow kuwoto yeeɗa bonndi criminal kuwoto wala en yamaroti mbemen ndila fonndin kewlla mbemen ndila sécurité fanala ye liparo bula ye moolu mota dron loi yaala dow koto sini wala jaabi lowo nga jele anti crime la ñaton ko mi la to yando jani kaatu nga ntekoye information no men soto before ibitaje ngamoyle ko ibita gorgi mbubla kordanto ibitajole yebo sere kunda yefota fo ibo town badala wotumo security be munela ani amanyan na kela mobe yalo ne ko gorgi mbub bi atele problem soto katambi mobe because a kuru yale kelela non kuru yadu ne ba kelela mo kuru on fana ke kelele ike kele nyame ike fana kele won nyama ni history dibe italy la mafia group dibe amang ka kurŋol kele wole ko yata duniya be kono woto gorgi mbub banko bele ñanta wulila ka tanka ka je ko aɓe dow ko men na ntolle bela nafa mo saba mo man lafi ɗugoy ke mo kurŋol bari niŋ ala ye wo lankan nfaŋol diŋol aniŋ barindiŋol aniŋ siiñol wo lel ka kuru yaake ñiŋ bankuŋ kaŋ woton be ñantan tew sitilalle be ganda ke o keno kono ŋaaje ko goobi mbub ye tanka ani momo manke goobi mbubti ni ɗo situation sifa kono ye tanka sécurité toña toña ime e la dow fo kede lum community fana i e be ñanta wullal nu yaaje ko men nu naata i e kana accès soto ye futa goobi mbub la dulaato ñi yekke mbeye ndesinti sinin sama na wulta dawoda si ñoolu baadiŋolu kafiñoolu i bee wuli ye a fo ko ate kelaja ina mana o kegie gorgi bum samba kitio le men fo nalo ta kuta fana bita kitio a kilongo la katu jam luwa manke mo tati luwa mu mo bele tati lungalo ko gorgi bum nyanta kala luwa kanta la tati ta sonna ka ku kel men luwa manta ma mi ra do kala na yo kede afana be luwa be ben kala dole dole kala fana ŋaajele i ka fo ñiw gambiya walaŋ po gambiya kutu bari hani sa ŋaajele ni moolu la faka fintiki la bala mbaagi tanji i buka pamit diina sa naata i ba agp advice i ba na la moolu advice amina comme wa pamit kuwala dipitewol fanan ɓe woni fono advantage loi men ɓe molu stop la démocratie yaɗo niyamol démocratie anin principe le kata anin mm. loi le kata mm. nin moyi ye kuuje men ma ñaafa ala ñantolen praye finti ma ntema understand hani kabi mansa kunda ka sila démonstration o la mune la mune moyi la problème mo tuje yela constitution right exercise démonstration o ye escotre i lafta men fono yafa abanta tanu ñin cocoɓeete kere niŋ pamito dii la coocoo meŋ ka kuma ate kuma laŋ ka a maŋ jari pame ñiŋ nte ka démonstrationo ke le dumaŋ pame ñiniŋ ka nuŋ hani kabiŋ na constitutional right niŋ ye a je ko ñiŋ meŋ ka ke a maŋ ñaŋ na ke la maa soto n be a jaara la daame waayi waayi ŋa right soto le ka finti ka na niikuya itami bari wo bee namanaŋ ke mansa kundaa ka moolu entertain bayi niŋ ka fii niŋ ka kacca n futata wo stage le to aliŋ n kali kacca aliŋafo na kordal to na bantabal to na sirulal to mansakunda fana ye sɔŋ i ni moolu ka ka ca niŋ ka ca ka kɛ ɲɔgɔn baliya te kɛra oncle ah, fala mina ko kala nani min karla bon to bayri ñin fonnintel min fanan sindita bi kam sati ko nga jeli ko imam pamit sar imam ri fanan manya na sindila bayri ya lon ko imam pamit sar wala ka sinti imam sen sar min ba tan dila ko to nyanda ka sindila yela balamba ya well yalo ŋaku mo a jane ŋa mene la kanka wala jani la don ko inte fa way demonstration o kelen du man pamit so wo bun na constitutional right le yalo ni mo ya muta o le samana mun na ne ka fo ko pamit ko man la fi wala ye la konsa soto constitution o le a manke wo bunda soto ni wo bunda only option ye men ke ye peaceful demonstration nda a sara nak wo mantara constitution o kono woto dipitol ɓe ɓanne ya bonɗije mool ya lon ka mantara ju ya ɗon démocratie ite bambunola démocratie comme démocratie la principale ko tetamala wala ate possible noon pamit kuwo ya dabondi je natra luwale min ko démonstration o ma ñanna kela ya fo outright ko moma ñanna démonstration o kela mool ya lon mi sa lon ko constitution o man provision o ke fo dat bar nin constitution o ya probat ko kon sans sitisiliela ni kuyakoje ye racitol pour que démontrer sono ke woto yakonde constitution o kono mool yaalon ban ma dama constitution o yo garanti ite ɓa kono la jumale te démontrer sono ke la nui lafta men ne mawol oye man ñafa kuusoto ila tombondir mool to ye carton fay ma ye ni aji koye man tara ila dow kuula e man dula soto e ɓa fola dame te ami reɓe muneke la wona kañum démontrer sono saabu woto gattoña fo ñooye même mu luwati ngalon kake faylalu consensus e fana a lodulano e saje ñin sonkote sotolage ñin démonstré sono ñanta kela la ma ñanna kela woye bondinna kuwo kono yewto seneadi mono honorable de janne namire ñanta o dow kuwo kelale yaje même luwati woye sabati mamanke luwati yo bondi mole ñoto mo ɓeya lon ko janne mum dandulati ma ñanna ñin kela abaraka baka onko falam wol mun ni min karol tinga min soto jërëjëf rek Mr Falang Sonko si ñëw bi nga xam te ne ñëw nga ko lii di Up This waaw man it kontaan naa si li ngeen ma invite maa ngi wés Gambien yëpp waaye maa ngi wax ndaw yëpp nañ tal nañ teey nañ nangoo dégg ndigal te nañ déglu kilifa yi kontaan naa trop si matuwaay bi Halifa honorable Halifa Sallah jël ak honorable Ousmane Silla ak euh, lawyer Martin ak Pandiri ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay ak suma jarbaat bi MC Cham jël nañ taxawaay bu rafet te foog naa ne ndaw yi nañ leen déggal na ndaw ñi tamit nañoo teey di déglu di bàyyi xel mag ñi te nañ nangoo daan suñ doole bàyyi yëfi criminal suñ buggee Gambia dem ci kanam wallaay ñun yéen la ñoo liggéeyal ndaw yi la ñoo liggéeyal waaye liñ gis si ndaw yi de tiital nañu daw na suñu yaram trop ndax ñun suñ taami xale mosu ñoo xelaat na sax affaire criminal dinañ si indoom ñun lañ ñu traité déggal démb xale yi message yu ñu doon joxe góor gi mbuub def ñoo fekka suñ bunti kër ñuy campé up to eleven o'clock twelve xale bu nar a tekki eleven twelve lu mu laa fekka si biti nañ te loo bugga man mii sax tray naa ba dugal ko suma kër pour xale yi am access rek si internet bi jàng mm-hmm. lu baax la nit ñaa ngee waajur yaa ngee tray lu ne pour seen doom yi tekki waaye su xale yi buggut a tekki dina daw yaram ana xale ak toog si buur ba eleven twelve o'clock si guddi loo faa ut ñeen nañu ba throughout the night ñu si mbedda luñ faa ut su góor gi buub jógee ñu ne góor gi buub góor bu mu jóg waaye suñu emoon seen kër ndax ñu tëdda seen kër yi góor bu soxla amut ak yow benn affaire te góor gi boobu tamit dafa bëgg a du ko noppal su criminal amutoon foog nga ne anti crime unit dinañ ko sos ni hmm. ko doon duñ ko sos ñun suñ taay mos ngeen a dégg anti crime unit loolu lu ees la Gambia criminal yi nekkuñ fi woon moo tax doo ko fi dégg waaye fekk criminal yaa ngi bari na kenn mënatut a nelaw sa biir kër yaa ngee jaaxle si mbedda mi yaa ngee jaaxle guddi yaa ngee jaaxle ak sista yi dox ak seen mobile ak seen góol ceen yëpp des na tuuti li ma gis Sénégal dina fi egg digg bëccëg sax doo ñëme nga takk a góol góol ceen si sa baat nañ ko doog si sabar bi loolooy lan ndax xale yi nangoo liggéey nangoo daan seen doole te nangoo xale yi waajur yi tamit nañ gën a góorgóorlu si yari xale yi buñ ko bàyyee kenn na ñëpp nekk soldat na ñëpp nekk police nañ jàppalante dimbalante njaboot gi su njaboot la gis nga su benn njaboot yàqoo yàq na njaboot su benn njaboot baaxee baaxal na njaboot yi bon nag ñun ñëpp nañ lu ne kii du suma doom kii bokk maag moom déedéet Gambia dafa ndaw ñun ñëpp a bokka ñun ñëpp ay mbokk lañ nañ leen góorgóorlu si njaboot yi ñun ñëpp ñu góorgóorlu si yar gi te ñu yokk a ñaan yokk a góorgóorlu si suñu njaboot dimbale njaboot bi dimbale jigéen ñi ku asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa euh, jërëjëf rek euh, thank you very much kooku nekkoon kii di euh, Falang Sonko bàyyi ko rek ci lii di UDP waxtaan bi nga xam te moom lañu doon waxtaan ak moom lu ñu dal di defee dañu dal di jël benn clip rek dal di dellu si waat suñu dellu si dinañ dal di andi kii di honorable Ousmane Sila Hey, you're here. Let's stop talking, please. Cut my way, I'm getting It's not good. You need to, you need to be accessible. Jizzo. Jizzo. Don't know. Hey. hey. Yeah. Yeah. Yeah. Every day my moves they calculate it. I know plenty man want see me fail. Uh, life sweet like chocolate. I'm steady counting blessings every day. Uh, now the young nigga be ballin'. The money is calling. Uh, the money is calling. I'm living life, I'm living life, yeah. Uh, man, you don't know what I've been through. Uh, sacrifices, sacrifices. Uh, just to get me to this level. I'm the baddest in my category. Balling, balling like I'm Curry. Shutting down everywhere now. Number one in my country. couple broke boys be hurting. Yeah. It will it Every day my moves they calculate. I know plenty man want see me fail. Life is sweet like chocolate. I'm steady counting blessings every day. Now the young nigga be ballin'. money is calling. I want the money for the fame. I was always trying to let you know. I'ma move like a late. Anything I do is me now. I'm about that life, yeah. Life. I'm the reason why niggas still hating. Got you feeling. Feeling this shit. Oh, I'm getting started. Je ramène la dope, et cuisine la sauce. Nigga be starving. Starving this shit. Yeah. Uh, naughty, I nigga be ballin'. I can feel the money coming. Don't know why calculate. I know plenty man want see me uh, life is sweet like chocolate. I'm steady counting blessings every day. Uh, now the young nigga be ballin'. money is rek ci lii di Star TV euh, update morning comme ni ñu ko waxee rek euh, gannaaw bi nga xam te ne waxtaan nañ ak kii di Falan Sonko am nañ fi kii di honorable euh, Ousmane Silla Banjul North honorable naka suba si. jërëjëf Sara jërëjëf Binta jërëjëf suba sànq rek. honorable démba balaa ñu duggee ci développement yoo def foofu ci Banjul North ñu waxtaanee démba. te euh, Demba nelaw la. waaw li xew nag démb mooy euh, démb dama demoon ci néegi tànnee bi ndax la askan dañ amoon foofu noonu waxtaan ak ministre of health ministre bi ñëw na fa man secrétaire bi ak comité bi nga xam ne maa ngi ci bokk ak comité bi saytu wàllu euh, wér-gu-yaram dañ ko yaram bi ma fa jógee nag laa am jafe-jafe gi am Westfield mm-hmm. xale yaa ngi yëngatu daal ñu ngi jóg daal ñu ngi wax démonstré jën bi yëgal ma dañ ma ko yëgal noonu rek ah, man ma jógee Banjul nag boori ñaari waxtu ñëw jëmale ñetti waxtu gisuma dara Westfield gis ah, mu ngi normal gis ma ko yaa ngi ko gisal nit ñi ngi normal bi mm-hmm. amul même saa yi ne yëngatu am na fii amul sax lu ma wane loolu noonu firnde ma dem ah man jàpp ne dara xewul daal. dara xewul waaw ma toogee daal bi boori juróom benn waxtu six o'clock si ngoon ndax kii na ñëw ni ma ne ah maa ngi gis Halifa de mu ngi si social media de ñun mu ngaa si Serekunda ne kon léegi mu ngi daal ñoo yëngatu foofu noonu yaaxa yaxaw métti ma ne ah ma ne ndax wax nañ ma lii de waaye gisuma gisuma dara lu ko wane loolu la ootee am ñu ne ma waaw ñu ngi suma seet dem xam nga loolu mooy njiit njiit mooy dañ la jiital nga jiitu si liggéey loolu rek la nekkuloo si boppi nit ñi nekkuloo si kaw nit ñi doo buur doo yàlla bu ndaw ndaw na waaye fa leen yow seentoo njiit man nag mun toog suma kër gis ne ñu naan si mbedda mi xale yaa ngi si mbedda mi lu ne mun naa ne mm-hmm. te ñun dañuy tànn pour liggéeyal nit ñi loolu taxoon euh, suma conscience suma suma responsabilité sama mayoon ne mun maa war a maa toog kër xalifaan si ma dem mun laa demee fekk xalifa ke jógee na sax police bi police bi ma agsi boori Barthes di ñëw boori Lion House sànni tiyagas am fa laa doore yi noppi tiyagas laa ñu bi jël seen ñoom xalifa ñaa ngi ndigalaan gaa ngi buntu kër xalifa noonu laa fa demee ma demee ci ne mu ngi dem jigéen am na yàqu-yàqu yu am ci yeneen béréb mm-hmm. suñu xalaatee ma si ñu des bi ñu demee euh, ñu ngi dëkkee Bakoteh Bakoteh police station bi ñu nee Bakoteh police station gis fa yàq-yàq bi fa xewoon ñu police station bi télévision bi ñu ko wàccee toj kii doon def mooy record record si yaaxa yaaxa daal ñu ne daal dara newatu daal ñu war ne lii office la lii bureau liggéeyukaay la toogu yaa ngi ñu leen daaneel yàq-yàqu doy war daal man nag euh, du àddu si loolu ndaxte mm-hmm. mbir yi mu ngi si loxo luwaa mais am na lu xew te euh, am lu jur loolu moo tax xale yi jóg loolu xalifa euh, liñ doon wax na loolu mais ñoom si ngoon si demoon naa Serekunda police kilifa yi nga xam ne ñoom leen ñu ne nekk si wàllu karange wàllu karange waaw police yi ak ki nga xam ne sax wax na député CDS xam ne moo ko si suñ jiital so mm-hmm. si ki soldaar yi mu fa woon so waxtaan nañ waxtaan nañ te naka la ñoo fanxee mbir yi c'est-à-dire par seen mm-hmm. comité bi mm-hmm. ay jéego yu njël waaye man dama demoon rek comme dañ ma tànn waaw loolu lu moo war la xam ma dem foofu la war la waaye te war la kon war toog ma kër dafa gën saaka li tax mooy ñaar nit ñi ñu ngi woon si leneen ci jàmmaarloo taxadee bi lu ne mun na sax ñàkk a bakkee sax mënoon naa xew ñu tax li jur li ñu ñàkk a bakkee moo jur li mu mel ni euh, li gën a tax ma jóg ñaar la mooy xale yi duñ loru takare yi tamit duñ loru loolu su ma su ma liggéey la su ma responsabilité loolu yi moo taxoon mu gën a jóg tollu woon na foo xam ne takkadeer yi mënuñoo dallu xale yi xale yi mënuñoo moom lañ bëgg moom lañ fa loolu ñu war a def pour dalloo loolu mooy confrontation mooy mooy mooy mooy jaamaarloo waaw jaamaarloo waaw te fitna du fa du foofu fitna du fa ne te daal jàmm du fa ne fitna rek a faa jiitu fitna rek a faa ne mu mel ni euh, ñun xalifa moom ñetti waxtu ñu xëccee ñaari waxtu two o'clock ba three o'clock dafa nekka ñu fa bépp after ten man dem ba maa ngi suma kër maa ngi fa dem man six o'clock maa ngi suma kër after ten laay suma kër ten si guddi waaye nag xalifa euh, moo njëkk a door ne moom di fi na intervention am fanqaana lu bari man tam ma ne bokka ñu bokka doole boole suñu intervention fan xanaa lu bari ndaxte xale yi ceraloon nañ ñu bi ñu waxee déggal nañ ñu si ñu waxee déggal nañ ñu ndaxte xale yi li doon wax mooy ne si côté bi di leen jam tiyagaas mhm. Alifa sax li mu leen doon wax mooy ne ah yéen nit ñi ñu dem nañ Bakoteh yéen a ngi dem Bakoteh si police station bi su ko Bakoteh yàq yàq yàq nañ ko police station bi yàq nañ ko yàq ne gisatuma dara lu ñuy mënaat gën a defaat ko pour yaaxal su ñu fa uti ñu ngeen yi ne dem mu am nag mooy ne dafa toll foo xam ne foog ñu wax. léegi honorable balaa ngaa dem rek ñu daal di euh, euh, waxtaan bi nga xamante ne euh, kii di xalifa defoon na ko ci Serekunda Euh, dafa am ñaari boor nag la mu koy ah? soo xamul ñaari boor yi doo xam naka nga saafarale daga soo gisee ma ñëw wax ak yéen ngeen wax lii seen métti mooy pour dégg leen ngeen wax li nekk ci seen xol yi dugg suma nopp bi su ko defee ma dem ci ñoom itam wax leen li nga xam ne mooy seen métti ni ma ko bëggoon a defee nag demeewul noonu bi ma njëkkee ñëw dama buggoon ngeen taxaw foofu ma dem ba ci ñoom wax ñoom ba pare siwaat ci yéen su ko defee benn jàmmaarloo du nekk seen digganteeg ñoom di ko fu jàmmaarloo nekk tiye gaz dina dem su yàggee bali fetel dem su yàggee bakkan yu rot te kenn soxlawul lu demee noonu mu mel ni nit nag su fekkee ne am na lu ko métiti te saafaraluñu ko foog rek méttit woowu dem ci moom lu xamante lan laa def moo tax ma ñëw bu déglu méttit wi dal di dem ci ñoom wax ak ñoom lan mooy méttit bi ñoom ñu xam itam ne am na loo leen bëgg ñu saafaraal ko su ko defee soo leen demee ñoom ñuy bàyyi loolu xel ba nga xam ne li xew ba loolu tax isi méttit woowu loolu du mun a xewati loolu mooy jubluwaay moo tax bi ma demee ba gunge leen ñëwati gunge leen ba fii dafa baax nag ma demaat ci ñoom mun a waxtaan ak ñoom ñu xam ne fi mu nekk nii yéen wax ngeen seen wax war nañ koo jël isi ko mu nekk doxalin bu la boo xam ne duñ noteel kenn duñ sonnal kenn duñ néewal doone kenn yaakaar naa ne loolu mooy seen jubluwaay loolu ngeen soxla. laa jéem a wax a sàmm li nga xam ne mooy. ñun maa ne dañ soona. waaw waaw dañ soona daal. waaw léegi dégg naa loolu ba pare. dañ dee jàppoon xale yi ndaw di leen toroxal. dégg naa dégg naa loolu. bi ma ne. bàyyi ko mu àggale. moo tax ma ne ba ma déggee li ngeen wax. dinaa dem ci ñoom dégg ngeen ma député CDS ñu doon waxtaan. Eh, wax naa fa li nga xam ne moo leen métti moo tax nag ngeen bàyyi ma ma dem continuer waxtaan wi ak ñoom. waaw su ko defee a ñu mun a bàyyi ñooñu su ko defee jàmm mun a nekk ci diggante bi ñu waxtaanaat nag lii isi jafe-jafe bi waaw ñu stop loolu mooy jubluwaay bi so ñoom dinañ fexe ba ñu dem ci rajo bi dem ci télévision bi ministre beeg yëpp di leen dégg ci télévision di nga leen dégg ci rajo ñu jàmmalanteeg yéen gis ne li ngeen wax xam nañu ko dinañ fexe ba mboolem loo xam ne lii awul yoon loolu bu mu amati yéen itam ngeen xam ne seen waru gal ngeen nekk ay doomi réew yoo xam ne di ngeen sàmm wante ak loi bi nga xam ne luwa du dal ci seen commune mu mel ni loolu mooy li ci am solo du noonu wante doole moom bokkul ci doxalin doole moom bokkul ci doxalin noteel bokkul ci doxalin sonnal nit bokkul ci doxalin suñ ne loi mooy ñu yóbbu la fa mbaxana nekkee benn wante sonnal nit kooku bokkul ci loi ah, déedéet. soo coonee loolu bokk ci loi. loo xam ne lii daal. métti na loolu bokk ci loi. yéen a ngi ko dégg. loolu nit mun na ci daal. yéen a ngay déggaloo dégg nañ bu baax mu mel ne loolu nag dinañ ko waxtaan ak ñoom bi nga xam ne métti la nit kooku moom du do nekk ci doxalin ni kooku moom dinañ ci taxaw temm nga gis ne façon doxalin boobu du nekk ci doxalin ni kenn amu fakkaat ay xale yu ndaw ñoo fa nekk di jàppal ni di def leen ne bu dugg foofu bu dugg foofu waaye bàyyi sa dina am ñu sàmm luwa am xam ne ñu sàmm luwa waaye koo xam ne kii sàmm loolu luwa dañu war a fexe luwa itam te ci sa bopp bi millions loolooy wax. daal léegi ñoo dem pour entourage dañ laa protect both espèce not non loolu booy déglu booy dem ba foofu booy dañoo dégg amul kum tey yéen a ko dégg waaw baax na ngeen may ma ma dem ci ñoom leen ko mu dem këram moom mu rek la lu may rek la daal léegi fay dem sa kër te moo leen di jëriñ boo coow bi toppal na ñoom cofeel gi am si yow la mais foo ku la xam jàmm rek nga mas di wut démb ak tey kon continuer ci dafa dafa straight dafa kii dafa jub waaw boobu nekkoon euh, lii di kàddu yi nga xamante ne kii di euh, honorable euh, wax na ko ñu ngi rafetlu jéego yi nga xamante ne jël na ko ndaxte gis nañ ne moom saa yu nekk fitna buggee jóg si réew daf dee génn dugg ci biir nit ñi waxtaan ak ñoom dafa gis ne jàmm dellu si na ci li nga xamante ne moo nekk lii di réew mi gisoon nañ fii nii euh, si juróomi instance euh, euh, moo taxoon dëkk bi tàkku bi nga xam ne ne loolu a jiitu si liggéey am ñi nga xam ne ñoom nga ñoom nga wax ne ñoom nga liggéeyal pour seen jàmma seen yokkute ñooñu noonu soo gisee si loo xam ne dafa jujur jàmm mm-hmm. luy la sonal la baax na nga wax si baax na nga def si si dara nga def si yaa ngi ko dégg li wax mooy ne bi waxtaanee wax nañ ba nangutoon nañ ne ah, ki nga xam ne moom lañ dénkal jawriñ bi nga xam ne lañ dénkal wàlli kaaraange mooy ministre de l'intérieur dina wax nit ñi ah, ki ne ñu amee wàllu kaaraange itam nañ wax ak nit ñi mooy rek mbir mooy ne moom ni mu ko waxee mooy loolu doxalin bu sell la mm-hmm. àndut ak mérital nit mm-hmm. àndut ak toroxal nit àndut ak dóor nit àndut ak yàq àndut ak jaay doole doxalin bu sell la si wàllu nguur ci wàllu ñu amee kaaraange àndul ak loolu waaye nag nit ñi tamit foog ñu ci sàmm luwaa ne luwaa dafa ñëw pour ñu ñëpp jëriñoo luwaa nag am na bu baax am na luwaa bu bon luwaa bu baax la wax waaye su luwaa su bonee sax am na noo ko war a mën a jaaralee ba gis ne luwaa bu bon boobu noonu nañ génne waaw ne loolu la ñoo wax mooy ne ndaw yi li ñu leen doon wax mooy ne baax na ngeen wax li leen métti comme li mu wax Alifa Keras démba biñ demee wax nañ ñoom leen liñ bëgg a loolu tamit waaw mu na wax ko ñun tamit demee doon wax yi ne leen lii la xale yi wax dégg nañ leen lii wax suñ na nañ ko waxtaanee suñ a waxtaanee pour seet naka ko war a mën ni ñu ko waxee rek mooy ne nga xam ne si wàllu kaaraange am na ñoo xam ne ah ñu ngi def li ah, li luwa santa li luwa am na ñoo xam mun nañoo def li luwa santaane wul waaye loolu su amee rek fokk jaarale ko si yoon ne waaye xale yi nag loolu tam bu mu tax li tax ñu gën a wax xale yi mooy ne ñoom su fekkee ne ñoom ñoom am nañ leen naxari waaw leen naxari moom loolu ñu war a déglu la saafaraal ko bëgg amati bay hmm? na waaye nag loolu tamit da loolu gën a amit doole pour xeex saafaraal ko su fekkee xale yi amul amul loo xam ne ñu ngi ko def luñ ñeneen ñi a wane ne nga xale yi ay yaxakat la ñu ne nga ne dañoo dañoo xeex li nga xam ne mooy mooy mooy lii li li li ak ak yeneen hmm. waaye yaa ngi ay yaxakat lañ yaa ngi dégg sax ñii nga ay saxtekat ay ligén xam nga mu mel ni yaa ngi dégg loolu noonu mais xam nga suñ demee ba indi si loolu noonu ñooñu pour pour pour wax seen mbir du du jafe. waaye tamit du ah, a mm-hmm. ñoo xam ne ñu ngi ñambaas di gën a mm-hmm. di gën a xamba xaal bi dafa mm-hmm. bokk si mbooloo mi ñu néew lañ dee nekk nag ñu néew lañ dee nekk waaye ñoo ñëw seen si dara du seen mbir lu mooy pour yaaxal du ma wax yoo xam ne waaye nga ne noonu mën a continuer dañ doon am loolu saa yu jamono saa yu demee dajale xale suñu waxee léeg-léeg sa kanam danga est-ce que da ko jóg waaye dañ ko dee mën a taalif dañ ko dee mën a wax ne ko déet lii du jubluwaay bi nga ne xale yi déggal nañ ñu mel ni xale jafewuñu ah ñun liñ mun noonu dañ leen dañ leen dañ leen tere ñu wax yi bi ñu fa demee dañ leen tere mu mel ni foog nga waxtaan ak ñoom foog nga cëral la tamit foog nga cëral leen engage leen li ñoo wax nag mooy sécurité nag si réew mhm. mooy daaxal ñàkk sécurité réew mi a mooy fa war a daaxal ñàkk daaxal xale yi ñàkk a métier daaxal euh, ñàkk am luñ def am luñ xëy xeexat euh, ñàkk xam li ñuy wax ignorance ne lii mooy sécurité bi gën a garanti soxla nga sécurité nag soxla nga police boo xam ne pour loi bi nga xam ne leen taxawal ne ko sàmm euh, police boo xam ne na doxal loi bu sell ko sàmm nit ñi nañ nangu loi bu sell nañ ko sàmm ne lii soxla nañ ko si réew waaye sécurité daal si réew mooy foog nga investi nit ñi foog nga investi ñoom foog nga investi ñoom loolu mooy mooy mbir yi nag mooy si nga dégg nga démba maa ndax ma ne démba bi ñu demee si ne sécurité bi na ñooñu sax loolu tax bokkoon na li ñu gën a yóbbu na ñoom sax ñoom de waa in ham suyee ñoom seen seen ñoom ñu ngi woon si jafe-jafe ñu leen a jàmm nga ñu si gaañ dégg nga ñu dem émission bi nga xam ne moo nekk Bakoteh mu ngi woon yaramam bi xotteeku ñu ko gaañ gaañ bu xaw a kii fi yaram baa ngi xar ne moom dafa dawoon dañ ko jàmm dafa daw dawale boppam léegi ñoom sax ñoom duñu ca si loolu noonu moo tax euh, foog ñu toog waxtaan foog ñu toog ci ralante waaw honorable euh, gis nañ euh, déportation bi nga xam ne daf dee xew delloo ndaw si ndaw yi fii ci biir léegi réew mi booy dee dem baak bi tamit delloo si leen at the end of duñ dee am fi nga xamante ne fan leen dee dugal so da nga gis ne at the end of the day loolu ñu dafa create unemployment uh, da uh, wax ci wàllu kaaraange uh, loolu tamit dafay jur ñàkk kaaraange a wax rek foog si nit ñi ñi ku mun di doon comme dafa a mun ko munoo ko te loolu nag nguur gi moo war a jiitu mooy ne nag Gambie fi mu toll nii ñu bi ñoo ñëw isile ceeb bi ceeb bi gën a waxtaan ñu ngi si ndaw yi waaye ndaw yi kenn waruñu si kat ñun bi ñoo mm-hmm. dinaa ñëw si loolu noonu gisoon euh, naa waxtaan bi jiitu euh, ñu ngi wane ne euh, affaire yi réew mi fi mu toll war fi woon a war fi woon a ñun liñ doon wax mooy ne fii ñun si ñettari at ñettari at ñettari at bi ñu waxoon waxuñu ñetti at si kese de waxuñ curieux si kese de ne curieux curieux rek nombas non non dafa am waroon a ñetti at bii dafa am waroon a lu ñu waroon door mu mujjee si ñetti at bi am loo xam ne na taxaw Gambie boo xam ne fàllu sonam la doorul loolu amul sax su amul soo ñetti at nombas la rek ñun ñoo ko nasoon ñoo ko doon nangutoo di ko waxtaanee ñun loolu dafa dalil bu taxawoon dalil boobu noonu nag mu amul so pour ñun nag ñetti at ak yooyu noonu ñun loolu ñun di suñ wax suñ wax daal ñu jamono ji ñu nekk nii ñetti at bii nii war nañoo am la ñoo wax di foom suñ soxla woon yëpp mooy ëlbati doxalin réewam ñu soxla woon ñëpp si wàllu kaaraange wàllu luwaa wàllu ax ak yëleef wàllu liggéeyukaay kuréeli nguur gi ni ñoo liggéey institutional reform hmm? waaye wax naa na yi loi bi ñu dañ ko mën a wéccee nga xam ne soo bëggee sax ñaxtu mooy démonstration kenn ñoo nit ki su amee lu ko naxari war na ko mën a wane waaye na ko am nu ko waree si yoon nga xam ne sax dañ doon ci loi yi da ngaa bind police rek ne ma ne dañ ñu ngee bëgg a def lii moo ñu isil leen ñu police pour ñu spili ñu trafic bi nga xam ne duñ ci stop trafic bi loolu la fa police bi nekkee dafa ñëw rek trafic contrôle trafic ngeen dem def ngeen war a dem si ngeen war a dajee ngeen dem wax ngeen a wax ñu bi la ñu waxoon ñun biñ d'accordoon mm-hmm. yooyu yëpp lañu nasoon pour mooy nag dafa fi mu toll fi mu nekk mooy da nga jël xeer bu nga nal ndox génnee ndox si xeer du mun a am ñetti at bii nii ah mm-hmm. luwaay yi nekkoon fii nii jimi jamono biñ ne moom na suñ bopp bi léegi moo fa nekk moo fa nekk biñ ñëwee ñaar fukki at sa gannaaw ñett ñi fu mu nekk xam twenty two years yi nga xam ne nguur di fi newoon nguur di fi génn biñ biñ biñ isi nguur bi bees bi nii ñoom kan luwaay isi ba tey moo fi ne mooy li tax ma ne dañ bëgg a si ndox mu ne lu yooyu noonu moom mooy luwaay yi ñu am nii ne nag damu nangu woon nañ xamoon nañ ne luwaay yi lu àndul ak luy luy luy dimbale ax ak yëleef àndul ak luy dooleel nit lu ceral nit yu bari si yoom lu ñu war a soppi la ndax nangu woon loolu noonu waaye nag ah biñ ñëwee door gis nga ni mu def li tubaab di wax hijack. hijack waaw dañ hijack process bi. ñu gëmloo ne lii ñëwul pour ici wécceeku lii lii dañ la jox doole pour nga loolu lañ xeex ñun dañ waxoon ne lii nii ñetti ak la soo xam ne dañ bëgg a defar foundation fondement li français di wax fondement olof di ko jël ni fondement waaye mooy foundation. mooy mooy ne dañ bëgg am dalil fu ñu taxaw fu dëgër dëgër fu dëgër fu ñu taxaw ne loolu lañ waxoon ne ñetti at yi loolu laa def mooy ne wécceeku wécceeku yi coppeeku yi nii yëpp dañ ko doon amee. li ko jamono ji Gambia am naa jamono yi sax dañ doon fi ne nekk ku bëgg a taxaw political parti nga taxawal a taxaw UDP nga taxaw waaye jamono ji ni kon dañ yi ne sax dooroon na pour élection si ko boor moom lañ tajee boor nag ne nguur gi nguuri doole la nguur gi nit ñaa la jox doole am ñu ne sax juróomi at ngaa toog bul faale ñetti ñetti at yi ñetti at yi dafa yàqal lu waa toogal juróomi at ah waaw su juróomi ñu ko dooleel la mu toog juróomi at ah so loolu lan la si daal fi ñu nekk li ñuy wax daal mooy ne nit ñi na jël matuwaay yi mm-hmm. ñun dañu tànnal ñun suñu wàlla fëy la si néegi tànnee fi ñu ngi def liñ mun ne seen nga sax affaire yi euh, liñ njëkkoon a wax mooy ne nga biñ ñëwee ay wécc wécc yu ñu def ay ñu ne li nga mooy at yi nga war a am pour a président vice président loolu la ñu fa waaj loolu loolu waxoon njëkkee sax li war a njëkkee mooy loolu waroon njëkkee mooy

collège yi ñu lebal. ah soo gisee campagne bi bu ñu doon campagne ñu doon wax nit ñi mooy ñetti ñun doon bi ma bi ñun la woon. man maa ngi wax nit ñi ñetti at yi du ñetti at rek ci ci ci ñetti at benn at ñaari at ñetti at nga wàcce déedéet dañ wax ne benn at bii ñaari at bi ñetti at nañ def lii nii PRRC bi sax nañ ko defi defin woo xam ne du nekk pour ne da dañoo dañoo dañoo riveñ dafa tout en réconciliation man dañ ma jàppoon man dañ ma jàppoon ju man civilien juri jamono soldat yi ñett ñaari at yi ñu jëkkee noonu tradition yi waaw waaw soldat yi si civilien ku dul soldat man maa gën a yàgg si jàppam man man maa di longue stage di tee nii civilien di tee nii civilien di tee nii juri transition waaye man du ma victime because man xam naa ne politique man bokk si politique waaw man bëgg ma réparation bëgg ma kenn ku mën dampa si dara terewul nag am na ñoo xam ne dañ leen toroxal soxla nañ soxla nañ loolu soxla nañ soxla nañ tur bi mu feeñ soxla leen ndàmpaay am na ñu ko distance ñu bëri foofu noonu waaye man laa man man loolu man dama bokk si man dama doon tee li fi newoon nguur goo xam ne dafa wéy rek si nga liggéeyal nit ñi ñàkk a liggéeyal nit ñi da nga war a wéy mun jaral la lu la bëggoon daf fi moom ba ba ba ko fi yàlla liggéey jëlee bu loolu nag nguur ku def loolu noonu nag ku ku ku jiital nga ne da ngaa liggéey nga gëm loolu noonu lu tax ngaa mun a def pour jox rek di nga mun a rey di nga mën a mététal di nga def lu bon a bon a ñaawa ñaaw ko mën a yàgg rek mooy loolu nag self appreciating rule ku ko góom rek noonu ngaa mën a nekkal da ngaa toon man xam naa ne loolu lañ amoon fii moo tax ma woon mhm. su ma jëloon su ma bokkee sax xam naa ne man ah man ma maa ko tànn ne lii laa bëgg a liggéeyal nit ñi naa ne ñun ko liggéeyee Gambia mun na nekk ajana si kaw suuf man gëm loolu laa gëm te loolu nit ñi ak nit ñi nga xam ne ñoom lañ ci tapp ñu liggéeyal leen ñoo ko mën a isi man bokk na si ñi nga xam ne ma bëgg nit ñi jiital ma fu ma liggéeyal leen ñu ngi si loolu maa ñoom ah soo lii nga jox ma ko xam ne kooku moom lii daf koy génne nguur la mm-hmm. nguur la lii aleel place aleel la place yi puugareel la kooku noonu te jaral la ko lu ne yow lu ne mun la dal lu ah? léegi ñu dem si lu xew ci biir kàmb ok euh, gis nañ ndaw yi euh, dem dem ñaxtu euh, peaceful demonstrations turn into you violence ok euh, ndaw yi ñoom seen yéene moo nekkoon pour la di dem ci municipalité bi foofu noonu euh, joxe li nga xamante ne moo nekk léegi loolu a tasaare seen information yi waaye ndal di dem fekk fa takaleer waaw moom laa mooy ne xam nga li ñu waroon a def mooy jamono jii dafa waroon a nekk dafa waroon a nekk loo xam ne kenn du ko xalaat biir Gambie mooy nit ñi bëgg a ñaxtu ñu la isal gàllankoor jamono ji suñ defoon lu ñu waroon a def jamono ji nii kenn ku bugg ñaxtu di nga ko bugg a pour def nga am si gàllankoor si wàllu ñi nga xam ne ñooy sàmmal loi la ko waxee rek daf doon yomba dafa nekk loo xam ne ko ma ne man si laaj su ma mbootaay man man nga man xam nga xam ku ko ku ko saay ne waaw dañ bëggoon a dem ñaxtu dañ bëgg a jógee Westfield dem ba Mbot waaye dañ bëgg a jógee si aaj bi nekk Banjul dem ba si national assemblée bi ndaxte national assemblée dañoo def loi boo xam ne def nañ ne loi bi su ko isee mooy li gën dooleel nit ñi dañ bëgg dem ñaxtu woon leen ne ñu nga ne mhm. ñu gis ndaxte dañ bëgg a tam ni ñu gis ñu ne li dañoo ñaxtu ñi nga xam ne tamit ñoom lañ yaakaar ñoo mën a issi wécceeku wécceeku boobu liñ bëgg ñu ñu ko fa defal ñoom tam gis ñu

ciy si laax bi tooy mooy ne bañ dooree wécceeku wécceeku amee nguur gi bees bi bu ñëwee li ñu waroon defuñ ko wala affaire yi tàmbalee ñi nga xam ne ñoo doon wéyal ne lii nii dañ la dooleel toogal jom at ñooñu noonu lii yëpp bokk na si waaye nag li ma wax mooy ne xale yi mun nañu am leen métti waaye nag lu ne nañ ko def rek sàmm ak lu luwaa mu fi soo demee euh, def loo xam ne euh, ne binda nga ñu bañal la parce que am na fa ko mën a wanee am na fa ko mën a waxee nga dem si kayit yi nga dem sax si ñun tànneef yi tànneef nga ne fekkee ne benn nga dem ne ah ñu ne nañ am na foo ko mën a foo ko mën a ko mën a jooytoo ñu lay wax a yi te kat léeg-léeg nit am cër nit ñi dañ am luñ bëgg li ma wax rek mooy ne mun ngaa ñaxtu te doo ko boole moom lu mu ramoon am la nañ ko bëgg a ñaxtu nañ la bàyyi nga ñaxtu hmm? Hmm. nañ la bàyyi nga ñaxtu waaye nag ñaxtu bi tam ñiy ñaxtu mun nañoo ñaxtu te duñ ko boolee yaaqa ak yàq waaw waaw ñëw ma pour mm-hmm. si ma yuut si leen ak tool waaye nag li maa wax mooy ne ñoom war ñu nangu kenn ku yàq seen der mm-hmm. comme li xewoon démb ba dem ci police station di yàq di taal loolu noonu yàq deri ndaw yi la ñoom ñoo war a bañ loolu loolu lañ doon wax ñooñu ne leen su ñëwee sax dañu yéen a kilifa yi yéen a ngi nii yéen a gën a yéen gën a coow yéen a gën a wax dañ bugg a ñeen dañu bugg a sas yéen ngeen àndal nii waxtaan leen ak ñoom li ngeen wax ni waxtaan leen koo ñoom ñoom tasaaroo ne yéen li ngeen doon yàq te ngeen mën ko koy yàq yàq baaxul waaye yéen amatul ko ba baaxoote bi a dem ko tax du baaxoote dañu ko jógee am na police station yu ñu dem gis nañ ñu leen yàq bi loolu doon koon police station yu bëri lañ dem tas yàq gis nañ loolu koona dem nañ euh, boori gundum mu ngi fekk mu ngi tëj waaye gis nañ xeer yaa ngi nekk si biti foofa noonu te dégg nañ am na yeneen yu laal waaye ñun ñaar yooyu ne ne lii daal ànd ak njaxtu am na ñu leen métti nag yaa ngi ko dégg ñu ngi yaa ñoom bëgguñ bëgguñ nakal li yëpp nguur gi li ñu war a mën a déglu la mhm. kii nga ñëw ki nga ñëw dafa war a xam li mu ko aar après ànd si loolu ne yaa ngi ko aar su ne ba gis ne def nii pour aar ko ko aar daf koo nopp ah loolu baax mhm. lu war a xoolaat la ne baax na daal nguur gi daal li ñu wax drawing board ñu dem xoolaat Cheikh naka la mën a demee naka la mën a def bi nga xam ne nañ sàmm doole moom doole moom kaaraange war ñoo jëfandikoo doole jëfandikoo kaw war na jëfandikoo doole yow da nga la jox doole pour nga fexe nit ñi nangu ñu du nekk du forcé war na nekk forcé waaw so mbiri daal lu ñu war a mën a waxtaanee la daal waaw ok ok li nag li xew nag démba mooy yaxa yaxa gi amoon euh, comme ñoo ko waxee rek ñun li ñu gën a jógloo mooy ndaw ñi nit ñi ak waa takkadeer yi ndaxte ñoom ñëpp ñu ngi si dënja. ok ko wax nañ ko waxtaanee bu baax a baax a ne moom lañ taxawal comme li yàlla ko waxoon dem kuréel yooyu nañ jël seen jéego yi nga war a moom war a jël mm-hmm. waaye tey tamit ñun tam nañ gën a wax gën a jàppalante mm-hmm. dafa la suñu réew la foog ñu jàppalante foog ñu xool ne soldaar yi yéen bi naka police yi dañ am cër bu mag si réew mi cër bu baax a baax ne sama loi ah gis ne ax ak yële fonk nañ ko mooy ñu nga xam ne ñoo nekk si wàllu sécurité bi ñëpp loolu mooy seen liggéey waruñoo yàq loi waruñoo météo kenn a am une civilisation society yaa tocco moom warta am fenn law enforcement officer ku fonkal loo doo loo tocco kenn waruloo rey kenn waruloo météo kenn loi sax dañ ne suñu la jàppee suñu loi bi ñu am suñu la jàppee warta passé ñetti fan dañ la war a ici si kanami loi si kanami loi wane li tax ñu jàppa la su fekkee dañ bëgg sax ne da nga bëgg continuer jàpp bi mhm. police boobu sax amat fa doole dafa war a bàyyi code mu am doole pour ko dañ ko dencaat ñaari weer loolu sax kenn mu joxee évidence yóbbu ko am nga am nga évidence warloo forcé kenn mu joxee statement ñoom ñu la jàpp nag évidence yi am mënuñu war a mm. ne ko ne wane ne yow def. ne nii war a demee ne foog ñu cëralante nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu kaaraange gi foog ñu gis ne nit ñi la ñoo liggéeyal nit ki nag yow doo ko lor. doo nit ki tamit nga gis ne kii tamit wala ki amee kaaraange kii dafa ñëw pour suma jàmma. pour sa jàmma waaw kii tamit du ko du ko lor. lorante war ta mën a am si ñaari yëpp. Hmm? ne lii mooy lim jàngat bi waaye nag nguur gi lii li mu wane mooy foog nguur gi liggéey. Mm-hmm. nguur gi a nekkat mu liggéey foog ñu dimbali suñu nit ñu am luñ mun am tàggat leen ñu ay métier tàggat leen ñu am xam-xam wàllu seen màcce seen xel mm-hmm. si dara tàggat leen ñu am xëy di dem di mun a liggéey di jur dara di am dara ah réew mi mun a dem mais li xew tam foog ñu yar suñu yar gi nekkul kër gi rek nekkul kër gi rek mbedd bi dafaa yar school bi dafaa yar fu nekkaa yar télévision yi yan média bi yëpp dafaa yar ne foog réew Gambie suñu problème mooy amuñu système ñu lañ amoon mooy régime change nguur gi eh, génn nguur soxla fi mu nekk nag système change mooy si loolu yëpp nga xam ne ñëpp dañoo gis ne kenn ku nekk man damaa yëg ne yow Sara Camara yow da nga si man li ma bëggal sama laa la bëggal bintu li ma bëggal bintu laa bëggal sama fa damaa gis kenn ku nekk ni sama fa mais réew moobu lañ soxla kenn ku nekk nag di am sa aha di nga am li nga yelloo waaye nag moom la yelloo li nit yelloo gis na jot na giddaam si dund li mu dundee. ok euh, Binta da am yooyu yéen laaj yooyu yooyu laaj. Euh, waaw man damaa change topic bi parce que du ma ko laajte yëfu biir sama as i woon xam bi dama ko laajte yëfu Banjul. yeah exactly dama la bëgg a laajte nga woo ma yan project yi nga nekk di liggéey right now ak Banjul. waaw xam nga man dañ ma tànn ma nekk euh, tànnee mm-hmm. ndaw. Mm-hmm. boo xam ne waa Banjul no Banjul bëj kanaa. waaw su liggéey ko mbay dem Banjul bi nga nekk a dugal. waaw su jaree bëj bi. Mm-hmm. man fa laa dooree ba si si nga polyclinique nga polyclinique. dem nag dugal nag dugal naa nag raba na ba eh, mujjee waat. Mm-hmm. mel ni nga yëpp man ma man ma tànn. Mm-hmm. waaye nag dañ pour ma liggéeyal réew mi yëpp. liggéeyal foofu rek rek. <laughs> loolu ba leer. ma tànn ma liggéeyal réew mi yëpp. moo tax nag fu ne yëngu. loo xam ne daal itteel ak askan wi la askani Gambia. béykat yi nga xam ne ñu ngi toog biir Gambia man dama ko war a itteewoo. dafa si war a jël dafa si war a def dara pour gis ni nit ñi seen dundin yomb na nit ñi li ñu war a am am nañ ko li seen ax am nañ ko mm-hmm. li ñu war a def seen warugal tamit def nañ ko du ne am rek waaye tamit dafa war a nekk ak dem ak a ñëw hmm? waaw mu mel ni ñun nag li ñu liggéey suñu liggéey mooy ñun dañoo defar luwaa yi nga xam ne si réew mi mm-hmm. man du ma looya mm-hmm. ñoo defar ñoo dee defar luwaa man mun naa si luwaa moo fa luwaa man fa def members bill nguur gi mun naa yónni usine ñoom suñu kanam foofu noonu usine loi mhm. ñaari nii lañuy defaree loi waaye nag suñu nguur gi usine loi sax mooy presse ministre bi suñu usine loi suñu kanam ñun ñoo ko nangutoo moo tax ñun ñooy ultimately ñun ñooy loomeekat yi ñun ñooy defarkati loi yi hmm? am na nag beneen banxaas si nguur bu ñu xam ñooy atte ñooy atte li nga xam ne mooy loi nga ñëw ne waaw loi bi question bi lim bi na mu ne wan keneen nee na question bi lim bi na kanamu na wan nag yow man ma ne wan yow nga ne tout man ma ne benn yow nga ne ñaar kanamu na la yéen nag ñi ñu mooy judiciaire bi ñoo ñoo a wax ñoom liñ ne la lan la constitution bi wax lan la wan suñ benn bi ma la ah, ñoom li wax mooy mujjee ah, ñoom ñoo am na nag koo xam ne moom war a du xal xal loi boobu noonu kooku nag mooy nga xam ne président bi mooy ñim jiite mooy exécutif bi mm-hmm. police si lañ bokka ministre si lañ bokka agence si fii lañ bokka ah, waaw département si lañ bokka so mooy loolu mooy ñetti banxaas yi ñooy ñoom ñoom mi ñooy ne man loolu mooy suma liggéey ministre bi bi ak ñu àndal tamit pour liggéey foog ñu soxla daal foog ñu soxla koppar foog ñu soxla mm-hmm. jumtuwaay ak loolu ñi ko war a jox ñoom mun nañoo ñu leen lii lañ bëgg waaye suñu ñëwee pour nangutoo loolu ñun ñooy nangutoo loolu mais nag ñun tamit dépense yi réew mi li ñuy wax njëli réew mi dépense yi réew mi soo xëyee suba nga génne dépense sa jabar génne dépense mu mun a doon yaay génne la sa jabar a génne yéen ñaar ay génne ngeen mm-hmm. joxe dépense boobu noonu ñu am lu ñu dëkkee mm-hmm. am lu ñu lu ñu reeree waaw comme noonu réew mi tam noonu la ñoo doxee kii nangu nag ñun nag boobu noonu xaw nañu utee kër gi ñun am na ñu nangu ñun ñooy nangu ñun ñooy dee nangu ñooy dee approuve budget bi su passé loolu nguur yi nga xam ne ñoo nekk si li nga liggéeyukaay kuréel yi nga xam ne ñoo nekk si ron nguur gi nga xam ne président bi moo leen jiite mooy mooy mooy banxaasi nguur gi nga xam ne mooy exécutif bi te président moo leen jiite ak ministre di ko jàppale ñooñu it ñoo war a doxal luwaay ñun tamit jox boo xam ne ak doole boo xam ne ñun dañoo ko ni nga xam luwaa santaane nangutoo doxalin li ñuy wax police ab doxalin ay kéene wala li nga war a doxalee mooy tubaab di ko police nguur gi nguur gi mooy banque exécutive bi doxal nañ ko ni nga xam ne noonu lañ ko waxee alal gi ñu leen jox tamit dugal nañ ko fi nga xam ne fa lañ ko war a dugal fi ñu nangu ñun ne comme fa lañ ko war a dugal ne li mooy suñu réew li mooy suñu cër ñun comme ñun tànnee fi leneen lu gën a si lii am na tamit li ñoo advocacy hmm. comme mbiri jigéen ñi ñoo ñi ñoo ñi ñoo yóbbu lël donc dafa am na lu ma di yàq si si nit mën ngaa waxtaanee loolu noonu. Mhm. man damay bokk sax si ñi nga xam ne dañoo ñëw bàyyi loolu noonu te boo ko bokkee si méttatal nit. Mhm. ne naka lañ mën a waxtaanee loolu noonu. xam nga advocate pour loolu ak jigéen ñi ma toroxal si biir néeg yi jënd bés bàyyi xale yi. Mhm. sa doom tëddoo yooyu yëpp. ne yooyu man bokk naa si ñi nga xam ne maa ngi ba maa ngi maa ngi suma kàddu si loolu li tubaab loolu la tubaab advocacy ne loolu tamit am naa cër boobu am na doole boobu noonu comme temps nekk waaye nag am naa tamit beneen cër ñi nga xam ne ñoo ma tànn am na tamit lu ma leen waral mooy hmm. la defal dara mooy representative responsibility loolu nag si loolu laa day def maa ngi yëngatu si Banjul ba si Banjul rek foo xam ne daal suñu yëngatu la nga naa demoon naa jël ay rideau yóbbu ko si lopitaan yi Banjul jël ko fa mu nekk donation hmm. waaw ndaxte dama demoon foofa gis ne am na seen wóor yoo xam ne sax amuñu rideau bu ma laajte ñu dañ la yóbbu fóot su yóbbu fóot dafa ubbeeku noonu nit ñaa ngi tëral feebar hmm. xam nga la ñu soxla léeg-léeg sutura loolu taxoon ma ne ma yóbbu leen bisi yooyu yooyu noonu waaw awaat naa gis te moo naa tamit am na ndimbal bu ñu ma joxoon mais nag kontiira ma joxoon ci gannaaw ndaxte maa ngi am benn kéene boo xam ne am na ñu ma jàppale pour school bi ñuy wax Krabaylan school la woon school bu amoon tour la bu nekkoon Banjul Krabaylan nag dafa amoon jamono xam ne dañ tëj ndaxte li tax ñu tëjoon ko mooy ne xale yi xamal jamono bu am na ñun man dem na ko def na benn ak euh, bàyyi ñun suñ jamono ak jamono yu mujjee daf daan dem ba ñetti junni ak lu toppal ay xale yi ay daara ndongo daara mhm. waaye mujjee yi mu am ndongo daara yi fa nekk mënuñoo egguñ sax ñaar téeméer mooy two hundred lu jógee two thousand ba two hundred mhm. mu gën loolu taxoon ñu tëj ko jël xale yi fa nekkoon yóbbu leen si meneen school bu ñu wax daba joxam fa school boobu noonu nag BCC ñoom ñoo ko moom waaye nguur gi moo ko doxal ministre of education ñoo ko doxal ñoo lépp waaw loolu mooy woon nag ñu bàyyi nag school bi noonu school bi door di yaaxu weer yi ñu génne parenteer yeeg génne bunta yi yaqa hmm. fa yaqa yu war jël dañoo jël di jaay euh, mission ne toppatoo ñu joxuñ ko dara ma demoon nag wax ministre bi ne leen man ma bëggoon li ma ñu ko na bëgg sax mooy Crab Island waaye ministre bi ne déedéet Crab ñun am nañ si soxla dañ bëgg def travail plutôt technical high school ah, mooy high school boo xam ne dafa jàngale mooy high school pour jàngale affaire yi métier mm-hmm. ute na skill set moo gën a kaw skill set nga xam ne ñu faa yooyu noonu mm-hmm. waaw mu dama la ko soxlee ma ne ko waaw yéen travail lan bii nii di ngeen ko bëgg def mooy technical high school waaye su la ko defee technical high school technical high school xale yoo xam ne ñoo fa a dem mooy ñi nga xam ne ñooy si school di pass exam waaye man ñu ma am ñu ma gis bu fonne dañu fa tam sonn tam sonal ndimbal mhm. te ñu ngi nekk si mbedd yi ñooñu noonu duñ daan duñ daan passe examen oh, bàyyi nañ school jàng nekk tuuti bi jàng ñooñu noonu naka la ñu doon dimbalee loolu nag suñ ko defee loolu lañ soxla nag pour fànq li nga xam ne moo xewoon démb xale yi noonu nekkoon si biti noonu mhm. ñu bëri si ñoom amuñu amuñu si waxtuñu si lu bëri si ñoom amuñu si luñ amuñu si luñ jàppa mais loolu taxoon nag lii moo taxoon ma xalaatoon lu mel ni travail la nguur gi nag jox ma benn pàcca waxuñ ma school bi yëpp de benn pàcc yoo xam ne ñu ne loolu lañ waaw loolu lañ ma jox ñu noonu loolu mën nañoo mën a jël loolu noonu man loolu lañ soxla ku mun a dem Karabaylan fa naa ne nguur gi a def dara rek mun nga fay dara waaye ñun pàcc boobu noonu ñun ñi ñi bëgg a jàppale mooy xale yooyu noonu xale yi nga si school mm-hmm. ñu ngi toog si liggéey ñu ngi toog ñi tam dem nañ sax dem lu ñuy wax bac yooyu dellusiwaat nañ ñu ñu naka ñu mën a tàggatee ñu am métier yoo xam ne dañ leen jàngal métier ñu màccax seen xel màccax si métier boobu noonu nga dimbale leen ñu taxaw am lu ñoo def lii mooy énne li lii laa énne ak ñu maa jàppale am na ñu bari ñu maa jàppale nit ñoo xam ne ñu bugg a réew mi ñu bugg a ndaw ñi mm. ñu ngi bokk di yëngatu ak man ah, si mbiri Kabayle ñu ngi si kawam nag ah, Kabayle nag bàyyi jamono jii nii waroon naa nekk loo xam ne taxawoon na pour dem doo di dimbale tàggat xale yi waaye nag ah, si am na si mbir yu nekk li ñoo process ba tey finalisagul bi am nañ si cër ñoom laay déglu suñ ko amee ba si finalise ko waaye ñu daal li ma bëgg a wax daal mooy ne Crab Island daal suñ ko amee lu mel ni amoon démba mun naa ñàkk a am mhm. te xale yi nañ am si luñ jàppaat dinañ ñëw su ñëwee sax su ñëwee sax pour ñaxtu kenn du ñëw pour ne da ngaa yàq doo am sa mer te max leen gisoon démb ñu bari lañ mer loo mhm. déggee nekkul sax ne rek euh, liñ wax ne moo waxee woon mhm. ba loolu jur am na ñoo xam ne am nañ seen yeneen mbir yu ñu yeneen na demoon nga am nga problème ak police bi demoon nga jàppal ñu waaw yaa ngi ko denca yaa ngi toog liggéey yaa ngi toog amuloo sax jamono yu amuloo añ lekkuloo yaa ngi jiif mhm, mhm, mhm. yëpp ay mer yu moo dajaloo ne nii nag la ñoo liggéey réew ne foog ñu am nag lu mel noonu pexe yu mel ni travail lan bu ci jiitu si keneen ku si mën a juuti nga def nga def li ma wax ko ñàkk a def waaye su ma ko defee ngëneel la waaw lu gën la lu war la moo tax man koo def su dañ soxla soxla nag dañ ku jàppale koo xam ne ndaw yi itteel nañ la ndaw yu Gambie itteel nañ la tam koo xam ne ndaw yu Banjul la ni ñu nekkee mm-hmm. seen jafe-jafe yi ñu nekkee ba nga ko safaral baax na nga bokk ak jàppa li nga xam ne mooy Crabaylan Crabaylan ñun li nga xam ne moom lañ bëgg a éne jàpp nga jàppale ñu nga jàpp ko si jàppale si jàppale bokk si jàppale bi ñu mm-hmm. jàppalante pour ñu gis ne antu bi ko jàppalante la man Ousmane Sylla man soxlaatuma dara man soxlaatuma ma tàggat si skills. si skills soxlaatuma ku ma jox job ah maa liggéey ni jox nañ ma liggéey. la du pour man du Ousmane jox na ma néem. su fekkee ñu gi rek. Gambie ñëpp a ko rafetlu koo xam ne ni ku am yër nga. Mm-hmm. ku yëg nit ñi nga da ko rafetlu. lii travail bi fu ma dem ni ñoo ko wax dañ ko rafetlu loolu rek su fekkee ne tur laa doon ut rek loolu la hmm? waaye gis nga ñun dañoo def ñun dañ ñëw pour liggéeyal nit ñi bugguñ si dara gambe bu baax rek lañ ko gambe bu béy ndaxte gambe su baaxee dafa baax pour ñun gambe su am fi jàmm pour ñun bu am fitna bu fitna ñun dañ see mucca man démb mënuma fa dem mënuma loolu te hmm. ñu ngi doon jàmm maa ngi lay wax tiyagas ñetti yoon maa hmm. ngay nokki tiyagas ñetti yoon ñu ngay dem tiyagas ñetti yoon mun fa su ma guti lakas su ma bëkkee nii dañ ma caa sax ñu ne maintenant dama génn ñu ne ma maintenant su ma su ma bëkkee mhm. nii xalifa tam loolu ñu ngi àndaat seen fii kenn kan si la bu ñoo Moussa Thiam ne a jàmm su amul ñun tax lañ amee gisoon na euh, tukki yi nga xamante ne dañ ko doon tukki tamit euh, la mu rek li ma doon wax rek mooy ne man euh, waa nag ñoo ma tànn pour ma liggéey réew mi te liggéey réew mi du nekkul ne doomi réew mi nekk ak si biir réew mi rek liggéey mooy liggéey doomi réew si biir réew ak ñu nekk si bitim réew te xam nga ne xale yu bari génn nañ réew mi pour tekki dem te ni ñoo demee demin boo xam ne la du demin bi génn métit lu bari ñu ngi ko del da ci yoon wi ñu ne ngay dee ñu ne ngay dem delloo soit ñu ne ngay dem jaxasoo di ànd nga dem dem nañ foofa ñu ngi si kaso yi place yoo xam ne kaso nga ko mën a ooyee ñu leen dem ñoo xam ne ñu ngi nekk place yoo xam ne dañoo fanaan si mbedd yi ñu leen ngi dem ñi nga xam ne dañoo xëy pour lekk sax ñu dem yàlwaan ñu ne leen na ñoo ne dem nañ mbir yomba naa ñoom waaye mooy ñi néew ñi néew laa laa wax nii ñoom si mbir yombaa ñoom ñu dem rek am wërsëg mais nag na dundin noonu la war a nekkee téeméeri oh, junne téeméeri soxla ñu ne ñaar rek ñaar ñaar bi kat ñaar rek seen wërsëg loolu dafa nekk lu war a ñu war a nekk di yaakaar moo tax fu ñu ci loolu taxoon na man xaaral ma dem doomi Gambie yi nekk bitim réew ma nemmeeku leen seet seen jafe-jafe loo xam ne man mun naa koo def si ma ñëwee Gambie ma def ko loolu mun naa ko ma nekkee foofu ma def ko te loolu laa def sax bu ma fa nekkee Italie laa njëkkee ma demee Italie euh, dem naa ki ma njëkk a gis mooy euh, ki nga xam ne moo fa toogal Gambie honorary consul mhm. moom nag tubaab la italien la waaye mu fa nekkoon depuis jamono Jawara mu ngi nekk honorary consul boobu Gambie du ko dee fay waaye nag suñu la fee honor consul da nga dee am cër ndaxte yaa ngi da nga nekk diplomate sa réew li bay dafaa yombaa hmm? waaw kooku moom loolu la euh, moom moo ma ne ma nag ah, moom sax moom wax loolu moom loolu ne ma moom itam dañuy nekk Italie ñu binda bind binda tooy man boo ma ko woon sax ah, moom moom moo fa nekk moom te ñooñu noonu ñi nga xam ne ñoo si am këyit seen affaire tane passé wuñ fukka fukki junne ak fukka bi ak lu ëppa yëpp amul kayit ñu si coono ñu si coono waaw donc nga xool loolu noonu naka laa defar kati moto dañ am xaalis fa la industrial heart lifin of Italy fa la alal gi nekk gën a ñoo li jur si alal moo fa in Italie ñoom la wootee ngeen di xëy waaye bi ñu demee xale yi maa ngi am na si place suñu dëkk am na si ay camp si dem di ñuy fanaan yi si ñoom ñu nekk foofu ñu fanaan si biti biti da xale bi suñu fanaan di fanaan amuñ luñ lekk ngis leen ñi ñu sangu nekkin bu boo xam ne la xale yi nekkee non man dama dama dama sax dama jooy dama suma ñëwoon a jooy seen kanam dama génn a jooy xale yi nekkee xale yu jigéen sa morom sa mbir morom juntu ñoom la sax yaa leen mag daa daa daanaka am na ñu fay suñu tuuti allé ñu ngi coono coono bu métti koo xam ne toog foofu noonu wala mu li ma def nag mooy dama dem oote ko am na gàmbe ñoom ne ñoo fa ñu ko ñoo Cheikh Ndiaye Kouta bokk na sax si ñu ma jàpp jàppale ak ñoom ñu bëri waaye bi Italie foofu noonu ma ma doon ko dama bëgg waxtaan ak Italie seen NGO yeeg government agency si nga xam ne ñoo amee la vie bi si ñu organise benn meeting ñu ñëw ñu am nañu represent government agencies yi amee affaire refugees ak NGO yi ñuy de seen conseil yooyu noonu ñëpp ñëwoon si daje ko noonu mën a waxtaan ak ñoom ma ne gis nañ li xew ñeen a ngeen jëf gis nañ Italie am na Gambie nga xam ne a ngi leen jël leen jàppale leen ba seen mbir yomba ñu bari ñoo xam ne tamit seen mbir yombul dañu ëppa seen affaire loolu leen bëgg nag dama bëgg ngeen def nit yi fi nit yaa li ñuy wax conscience ngeen dawal yërmande ne xale yi dama bëgg ngeen xam niñ nekkee niñ ñëwee wala neex lay ñëwee dañ ñoom nañ sedd seen kër waajur dañoo jaay seen kër seen suuf yi jaay seen nag yi jaay seen takkaay yi ñoo doon liggéey ñaxa dajale dajale lu yàgga daf leen toog sax ñoo toog sax du ñu lekk dajale loolu lañ dajale ñëw bi ñoo ñëw coono si yoon wi lépp bi ñu dekkee liggéey ni lii la fitna gi fa nekk coono gi xale jaar nga ñëw jaal jaar sa morom yaa ngi àndaa sa morom ñi nga yaa ngi àndaa am na ñoom dañoo deret ñu dee ñu loru nga am microbe ñu ngi bëggatuloo am na sax benn misaal bi ma lifin benn lifin benn wax bi moom mosoon lay dégg booy bi dafa génn fii xam mhm. xama yaayam ñu ngi soona de booy bi amutoon liggéey daal ni mati mati moo daan support famille bi mu jékki-jékki na faa dem dafaa dugg dem baak bi dégg naa mu dem te Niger bi newee Niger mu jël téléphone kool kii mu kool rek gars yi ne ko ma ne sax fa gaañ ne ñëwal sax fa deena mu delsi mu ne su ma ko deena ma delsi lii kañ mooy ma continué mhm. man dakaa delsi su ma pa nga xam ne man moom moo daan jàppalante man maa daan jàppalante pour dafa daan man su yore kër gi moom dee na man moo daan ñëwaat toog ko condition su noonu ma si a fekk ak fekkal daal ma dee ñu ma ma mun am tekki am lu ma mënoon suma waajur ñu génne na si coono mm-hmm. dëkk bi ni mu mel ni mu mm-hmm. mel fi mu toll ne dafa soxla wécceeku baax a baax a baax a baax dafa soxla wécceeku waaw ba ma demee nag loolu lu mel noonu laa doon wax gars yi ne leen ñii dañ jàpp lu métti ñi ku jëlee rek delloo leen Gambia yéen su leen bëggee dimbale Gambia Italie su fekkee dañ bëgg dimbale Gambia du jël xale yi delloo leen waaw dëgg pexe bi ngeen war a mën a def mooy ma leen nag man d'accord naa ne xale yi nguur Gambia su liggéeyoon su fa woon nguur bu liggéey bu baax a baax xale yi duñ ñëw hmm. man loolu d'accord naa responsabilité bi nguur gi fële te man bokk si si nguur gi suñu xale bi génn ñëw fii di jaar yi mu jaral leen jaar nii dañuy wax bàkk bi ñëw fii nii waaw waaye nag ñëw nañ bii ñëw nañ ba fii ñu ñëw nii a a naka lañ mën a a jàppalante ñoom nga xam ne duñu yàqa seen loi yéen bëgg leen ko ne kii kii ñëw sa kër yow laa neex nga nangu ko mhm. soo ko so yow loolu moom sa laaj la seen d dawal yërmande ne li ma leen mooy xale yi nii jël leen ngeen tàggat leen juróom benn weer benn at benn at ñaari ak ngeen tàggat leen si dara soo leen tàggatee ba ñun dara ñu utaleen package yéen a ngi ñu dimbale lu mel ni Gambie yooyu la woon na yëpp pour yi naka la ñu mën a def ba xale yi demati dem dem ne bi pour dem tugal dem bitim mm-hmm. gën a a li nga xam ne demagut nag doo ko jël jël leen ko ngeen tàggat xale yi ngeen tëral leen ci jàngal leen skills ñi captain ñi plumbing ñi électrique ñi architecture suñ paree ngeen utal leen paquet kenn ku ne utal ko paquet jox ko ay thousands of euro mhm. ay soo leen nee sa ngeen jox ko bagage teel ko si xaalis mu dem kooku noonu kooku ko mën a kooku foog mu dem because kooku du bañ loolu noonu dama gis naa xale yoo xam ne maa ngi doon waxtaan ak ba demee si train station bi mhm. am nañu wax ne ma ñoom suñu amoon loolu dañoo cel loolu sax bokk na sax li ma gën tax ma gën a nii léegi li safara la defal leen ñu lii rek suñu defalee li ñu nekk nii ñeneen ñi nag ñu waxtaan suñu tur ñeneen ñu seet naka la ñuy nekk Gambie am ay métiers yoo xam ne dañ am su luñ jàpp xalaat yoon naa ko foofa noonu ne lii ne lii ni suñ la nit sànnee liggéey li ngaa defal nit ñi ñuur si dañ def faral di wax ne tukki tekki tox ah, torox torox moom nga seen da o ay da doo torox da doo dee loolu mun naa ne mun nañoo dimbale xale yu tekki duñ dee oo nag nga nekk ñëpp nekk millionnaire waaye pour am xale yi faut même ah ñu bëree ngi fii nii di liggéey am na ñu nekk si profession bi te amuñu liñ na lu liggéey na ñoom ñu ngi fi ñu am na ñu war a liggéey Gambie pour kenn ku nekk mu moom la loolu moo war am duñ ñax torox waaye Gambie fi nekk ngas ñuy liggéey taraf ñoo xam bari ñu ñoo liggéey ba dee am dara dañoo torox da liggéey ba dee doo doon dara ji nekk si mbali non non métti na trop maanaam désparetul si possible désparetul nit ñoo mën a sol problème réew mi nii seen boppa ñoom moom réew mi duñ njiit yi jiite leen jiital pour ñu liggéeyal leen yow ki nga jiital nag kooku pour mu liggéeyal la dafa war a liggéeyal nga génn si coono nekk si teraanga nekk si àddina si kaw alkaara nekk si safara moom mu nekk si jàmma nekk si teraanga ah loolu war nga xalaat sa boppam ne mbir daal si nit ñi la def ok ok euh, waxtu mu ñoo jàmbu euh, loo am pour advice euh, waaw mooy la ñun ñëpp la ñun ñëpp euh, doore ko si exécutif bi nga xam ne président bi moo ko jiite mooy rek ne réew mi dañ ko jiital pour ñu aussi toppee ko si réew mi gis nañ Gambie ni meloon biñ moomee moom na suñu boppam ba léegi Gambie buñ ko amaguñ ko naan sixty five bi nga xam ne tubaab bi nañ fi nekk moom ngeen coobare pour li ngeen bëgg a ngeen def ah ak naan di sixty five bi nga xam ne moom na suñu boppam fuli am nañ républicain service moom nañ suñu bopp am nañ ful boobu lañ am indépendance loolu lañ ba léegi Gambie bi ñu soxla amuñ ko Gambie bi ko ñaara si am wax la nit ñi ak ñi xam ne noonu lañu jiite ñi ñëw pour ne dañ leen liggéeyal mooy ñu yëngatu si wàllu politique mais président bi ñun bi ñu ñëwee li la isi mooy ne ko su wécc ko toon bi mu nekk Gambie Gambia would have been in a civil war and fratricidal li ci war a fratricidal dañoo reyante si waaru xeet moo fi doon ney ña ngi ay jaasi ay paaka amutoon si marché bi xam nga li ñu na mu forcé ñëpp bi ñu demee ay parti yoo xam ne ñu ne seen boppa bi ñu demee wër réew ñu leen dem leen ñun dañ boo ngeen dànkaloo doomi Gambia ñoo ñu gëm leen soo leen nekkee benn si la bi si ko ñun su man parti bi ma bokka muy doy ñun li ñu wax nit ñi mooy ne système change ñun yàgg nañ koo gars ne yéen Gambie soo leen soo leen mën ko soo leen paree rek bu ngeen Tarabera Fatick jëlu sax ngeen plus coalition Tarabera Fatick waaye ñu ne déedéet de coalition ñu gom loolu lañ gom ah ñu tam ñu gom li nit ñu gom ni gom ñu li def léegi ñu door loolu noonu Halifa moo door waxtaan wi ah soo gisee change bi am nii Halifa la ak Fatick doy ñu door dem oo ñëpp ñu ñëw di nga ñu ko defee ni ñu njëkk def mooy président sa candidat si leen oo ndaxte doomu tamit wonoon ñu war oo parce que bu nekk ak yow waaye koo xam ne ñemeen nga pour taxaw ne nga bëgg a tànn capacité kay oo na la léegi na ngeen boo ni la nañu góor ah ñu ne mu jéegi ñu boole yi boole si nga xam ne sax bokkuñ si parti ñu ngi am taxawaay comme ay nu muy defee amoon na indépendant bokk nañu la process dooree ñu ne dañ ñëw ñëw ñu pour ki fi ne woon génn fi loolu rek da taxutoon pour ñu gën a fi rek lu mu ñëw am rek baax na ba ne mu ngi na fi génn rek bugguñ ko bugguñ ko du loolu ñu doxalin bi lañ bañ ne nag génn doxalin bi nga xam ne woon doxal moom ngom la fekkoon doxal doxalin boobu noonu si beneen doxalin bu bees lii mooy woon nangu too bi na ñu ne nag lii ñu mën ko def si diir ñetti ñetti at ñun ñëpp ñu nangu Halifa Sallah dafa nekkoon candidat yi doy bi ñoo def convention pour taal ak ñu jiite xalifa li ma fa woon ñaari at la ko fa woon sax waxtaan bi ñu waxtaan ñaari at ñun doy loo leen proposé woon yeneen parti am na ñu ne five years am na ñu ne foo dañ mujjee ñëw three years loolu moom mooy woon consensus bi moom la mujjee d'accord ku nekk wàcce ñu wàcce éeg ñun ñu éeg ne and ah, loolu la gars yi wax njot bi ne tri d'accord na si soo ñu ànd tri sur toi dalil la woon waxuñ three na ci wécceeku loolu dafa tax

psychothérapie li kon li kon wàññi psychothérapie boo am na amoon na si si xam ne ñi dara taxul lu mooy nit ñi duñ jël ci ordre si kenn pour dugg ñu tetal nit duñ jël ordre si kenn pour rey nit ordre bi moo jël pour nit ñi aar nit ñi mm-hmm. protection psychothérapie mooy la pour protect nit ñi du benn individual nit ñi la si boppam nit ñi nga protect loolu mooy psychothérapie pour ñëpp la ne loolu dafa doon amee loi yi loi yi nga xam ne da ngaa war a nañ ko def mu kenn ku ne di mun a wax li ñuy wax séduction nga wax nit man su waxee ne Sara Camara dafa dafa sàcc mun na moom maa jël yóbbu ma si luwaa ne ne ma dalil war a jox ndàmpaay pour loolu ni ma yàq sa der ne yooyu la doon nekkee ji ni kon dañ doon amee luwaa baax good media laws ne yooyu noonu li ci institution bi police yi soldats yi yëpp du amati NIA sax dañ ko doon ceen yi nga doom leneen nga am sax lu dul ne naan NIA nga ñëw am lu ñoo institution bi civil service bi ñi faa nekk ku faa nekk da ñëw koo xam ne da institution yu mag a mag yi nga xam am solo daf suñu la appointé ministre rajo assemblée ñoo la approuve pour génn sax dafaa nekk lu jafe jooju si tamit mu noonu mu nekk noonu nga xam ne ku fa nekk da nekk nit ñi sax loi mu nga dox loi boobu ñëpp nangu ko ah jërëjëf dafa lañu réew moom lañ soxla woon ne lii bëggoon nañ ko am passé woon nag mun nañ ko am suñu amee nag ñun doy moo wax doy am ñun two thousand and three la doy a nekk doy after two thousand and three lu nekk rek coalition coalition bu def ko loolu mooy jàppoon fi mu nekk nag ñun dañoo taxawal suñu parti doy système change luñu bëgg a réew mi mu jàmm réew mi soxla ko mu am ko ci loolu lañ nekk jëbal lañ nekk yéen a ngi dégg fan yi ñu ngi war a dem ami congrès gën a taat taat pour liggéeyal nit ñi dañu liggéeyal askan wi seen ami démb mën nañoo toog suñu kër yi mm-hmm. nekk suñu condition la si mm-hmm. nekk dañ ko génn dem fekk nit ñi si suuf euh, jërëjëf rek euh, thank you very much honorable euh, si teewlu bi nga xam ne teewlu nga ko fii ci biir Star TV a bara ko waakewne men wurmba sarota ala jani mbaade namoy nan fo suuma inchallah euh, jërëjëf rek fii lañ ko yemale rek ba ëllëg euh, incha allah rek di leen jox euh, dox daje ëllëg di gërëm ki nga xam ne moo nekk kii di Mariama rek ki nga xam ne moo ñu nekkal ci wàllu caméra bi di gërëm ñoom Mr Ba ñoom Nima ak ñoom Aliou ñi nga xam ne ñoo nekk ci contrôle bi ñu bente di leen gërëm rek ci sam rafet bi ngay ko seetaan lii di Amstar TV bi dina ma ci ñu def ëllëg incha allah Jizzo. Jizzo. Don't know. Hey. Eh, eh. Hey. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Every day my moves they calculate. I know plenty man want see me fail.